kon mbégte la rek Wakam retrouve l'élite mhm. depuis 2017 ba léegi ñu ngi ko doon xaar kon félicitations à absolument <laughs> alors euh, de Wakam ñun dañu dal si xam nga lébu yi ñoom dañu dañu baax dañu yaatu ku ñëw ñu dalal la grec jóge fi nga xamante ne moom mooy Joal man ma jóge Kaolack ñu ñëw lébu yi dalal ñu ñu naturaliser ñu def ñu ay lébu ñun d'accord nañ <laughs> Babou maa ngi lay nuyu yow tamit di la di ci dimanche bi. di la dolli ziar bu baax a baax Adja di la fay. Mm-hmm. di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñoo jàkkaarloog ñun di ñu sitaan comme tous les dimanches. ñu war a waxtaanee lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllum tàggat yaram mais tey ñuy daw ci li nga xamante moo di ginnaaw monté bi. Mm-hmm. malgré descente yi métti woon na trop ak li nga xamante ne moom la yóbbaale woon. mais tey jii wax dëgg yàlla gars yi kontaan trop trop trop muy village Wakaam yi actuellement ni joueurs yi moo tax moo tax émission bi sax xaw a tardé parce que soxna Adja bi tey moo si embouteillage yoo xam ne voilà mais Adja tey jii mu mel ni tey menu bi tey dafa mel ni tey ñaari tomb nga am tey. alors tey euh, ñaari ponk la ñu nar a waxtaanee ni nga ko waxee baabu euh, dina ñu ñëw largement ci wàccaayu afrobasket bi ndax. jigéen ñi rawatina ñi Moustapha Gueye di tàggat fi mu ne nii ñi ngi wàcc d'ailleurs tout à l'heure il y daal dinay fësal li su fukk ak ñaar yi wala dem ci Rwanda wala défendre nag les couleurs nationales te dinañ si ñëw yaatal ci d'ailleurs démb suñuy naataango journaliste rawatina ANPS di kuréel bi ñu bokk ñun ñëpp amaloon na ab lël ñu waxtaan xool nag nees ndax gis nañ ne Sénégal ginnaaw bi mu tàmbalee bokk ci jongante bu ci mel ni Afrobasket remporté na maanaam gagné na lu toll ci fukk ak benn raaya waaye dañu nemmeeku ne depuis bi nga xamante ne am nañ sunu raaya bu mujj c'était fële ca Cameroun ak actuellement ki nga xamante ne moom mooy tàggat gaynde yi depuis lors déggatuñu li nga xamante ne moom mooy félicitation lan moo ko waral démb am na ay esquisse waxtaan nañ ci tey dinañ ko gën a yaatal dinañu ñëwaat aussi ci li nga xamante ne moom mooy waajtaayu coupe du monde 2026 ndax gaynde yi Aliou Cissé di tàggat léegi xam nañ seen prochain adversaire bu ñu ci jógee dinañu ñëwaat aussi ci li nga xamante ne euh, moom mooy leçon yu ñu tiré ci campagne bu gaynde yi am ñaar fukki at ndax dem nañ nekk champion d'Afrique jóge fa euh, dem coupe du monde dinañu dellu siwaat ak ki leen di tàggat muy Malick Daaf waaye duñu ndaat kepp te dellu siwaatuñ aussi ci sacre génération foot démb les Grana jël nañ li nga xamante ne ñoom tamit moom mooy seen troisième titre ci ère football professionnel fii ci Sénégal tey leer na kan mooy jógee Ligue 2 dem Ligue 1 jamono de Fatick la ak US Wakaam Wakaam bi nga xamante ne fii la ñu nekk tey ponk yooyu yëpp danañ ko waxtaanee dinañ ci boole nag li nga xamante ne moom mooy footballu jigéen ñi ndax ñoom aussi tàmbali nañu seen tàggatu ak ñaari jongante xaritoo ak Algérie benn bi def nañ ko ajjuma ji ñu koy xaar incha allah mardi euh, seen beneen rencontre mu nekk une deuxième rencontre amicale toujours avec le même adversaire waaye balaa ñuy ñëw ci développement bi ñu dalal suñuy gan honneur d'abord aux dames ndax dañu am une championne qui la là avec nous ce soir Nathalie Sagna qu'on ne présente plus et c'est un immense honneur euh, dalal la ci plateau bi Nathalie maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm Adja bi tey maa ngi lay fay lu bari bari. Mhm. Euh, di la remercier ci invitation bi euh, nga xam ne que dañu permettre euh, ñu waxtaan lu bari ci lu jëm ci basket bi. di nuyu aussi sama frère yi ma nekkal ci plateau bi. Mhm. may commencer ci sa beneen invité bi. Mhm. le coach Malick Daaf. maa ngi nuyu lu bari bari. di nuyu Babou Ndour. voilà di nuyu aussi Grégoire Samba Ngom voilà di profito tamit euh, si direct bi di remercier di féliciter l'équipe de la Jeanne d'Arc bi nga xam ne que <laughs> fa laa sosoo fa defee sama lépp euh, voilà di encourager tamit euh, ñeneen ñi tamit fii comme góor ñi si échéance yi des <laughs> voilà di nuyu Sénégalais yu ñu seetaan yëpp Euh, di nuyu plus particulièrement fi nga xam ne que fa laa nekk muy sama commune. Mhm. les Parcelles Assainies maa ngi def un petit coucou. voilà di nuyu tous les adeptes du basket. Mhm. bàyyiwuma kenn waa di def na mention spéciale nag CRBS. Euh, euh, voilà la convergence pour le renouveau du basket sénégalais. bi nga xam ne que ñëpp gis seen taxawaay ci basket bi. Mhm. di nuyu tamit Kër Mag ñi. voilà di nuyu waa Agapest. voilà di nuyu aussi bépp kuréel boo xam ne que daal euh, nekk nañ fi maanaam pour luy avancer la basket bi. merci voilà di nuyu sama famille di nuyu tout le monde. di nuyu tout le monde jërëjëf euh, Nathalie Sagna c'est un immense honneur sànq ni ma ko waxee ñoom aussi mbégte ak contenté et retrouver le sélectionneur de l'équipe nationale junior Malick Daf coach ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau bi yow moom dugguleet nga ñëw ci plateau sport sur set. d'abord ñu sant yàlla bu wér sant yàlla bu baax. Ah. di la nuyu yow di la jox sa bu baax. Ah. di nuyu Nathalie muy une championne tax na ñu daan seen basket. seen jamono c'est la grande Jeanne moom vraiment moom bu mu présenté woo rek déjà man bi ma woo rek je je me suis rappelé de beaucoup de choses. <laughs> parce que ñoom seen jamono daan nañu dem lu ci bëri di seetaan yi basket. bon di nuyu Grégoire di nuyu Babou di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi seetaan émission bi di ñaan yàlla yàlla dafa ñu tawféex. amiin di dugg si bisimilah rahmaani def na si alhamdulilah rabbil alamin def émission bu neex bu ñëpp mën a déglu kontaan. Mhm. et puis jëriñu si incha allah taala. absolument merci beaucoup coach en tout cas c'est c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau bu ko defee Babou dañuy tàmbali basketball bi ah, ndax maa ngi koy wax sànq rek. Euh, à peine quelques minutes la rendre public list douze yi waaye balaay loolu rédaction bi def nañ jàngat par rapport ak liste bi li ñu ci doon xaar mais surtout attentes par rapport ak Afrobassi bi nga xamante ne ci la ñu jëm. ci def élément bi moo di soxna Jëmba Mbay wax na ci li nga xamante ne li moo doon xaar kii di coach Moustapha Gueye mu génne li nga xamante moo di 12 yi waxoon na tamit jafoon na maanaam ay liste xaar wax dawoon yan joueuse lañu war a recalé ñuy élément ñu xool élément boobu ñëwaat ci plateau bi. Moustapha Gueye jamono gi moo ngi si célébé yoon moom mi jiite gaynde yu jigéen yi di yëngu si wàllu basket war na rek def fam balaa équipe bi di tàmbali. afro basket atum 2023 gannaaw nag yoon bu gàtt bi nga xam ne defoon nañu ko sa afro basket 2021 ba doon am sa Yaoundé moom technicien bi ñoo ngi xaar mu tànn joueuses yi nga xam ne ñoom ñoo war a teewal réew Sénégal sa yooyu la jongante réew Sénégal nga xam ne ay jàllooreem si wàllu basket si dendu Afrique kenn dootu ko na tàppale ndax am nañ fi lu tolloog fukki raaya ak benn Sénégal mooy réew bi ëpp ay titre ci Afrique gi yëpp ñu bëri nag jàpp ni yëfi du yomb ci kii di Moustapha Gaye ñeneen ñi jàpp ni ci fukk ak ñeenti joueuse yi taxaw règlement bu FIBA bi yombala naka tànneef bi moom Moustapha Gaye ci diggante américaine bi ñu naturalisé jox ko nationalité bu réewu Sénégal di Sierra Diané Dilar ak bi national bi di Léna Timéra si xëccoo googee moom meneuse bu Sporting Club bu Alexandrie mel na ni moo sa ëppagum sens li des nag mooy ñu xool si fukk ak ñetti lion yi kan moo dul dem pays de mille collines lu taw a xam yàggul yëfi dina leer file ki waxtu wala ay bés yu néew ndax réewu Sénégal war na dem sa Rwanda ñaar fukki fan si weeru juillet gi ñu nekk nii bu ñu yeggee nag gaynde yu jigéen yi war nañ fa amal ñaari match amical benn bi dafay def si seen diggante Rwanda mi woote. beneen bi ñoom lay doon ak waa république démocratique bu kongo laata rek ñuy door Afrobasket atum 2023 bi war a tàmbali ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet gi ñu nekk ni jërëjëf jëmm mbay mu nekk jàngat bu am solo boo xamante ne def nga ko mu jëm nag ci list bi d'ailleurs la liste est tombée ñaari leer na Fatou Dieng la ak kan ak kan euh, baabu bu fekkee ne mën nañu am li nga xamante ne moom mooy contenu liste bi balaa ñuy ñëw ak Nathalie par rapport aux douze qui ont été désormais retenus effectivement Adja sànq rek euh, maanaam bi timis euh, jotee la ki nga xamante moo di Moustapha Gueye génnee liste maanaam douze joueuses yi war a teewal Sénégal fële ca Kigali bokk na ñi ñaar ñi nga xamante Adja dañu njëkk a d' abord commencé si ñaar ñi nga xamante ñoom la gars rëkkale mhm. mu di Umu Kalsum Umu Kalsum moo di Léna Timéra Léna Timéra nag bi afro basket bi weesu moo ko daal ci afro basket bi ndaxte boobu tamit même chose dañoo amoon maanaam xam boo yenn euh, fi FIBA seen règlement yi doo waru mën a jël li nga xamante ne ay bi nationaux yu yu yu bëri benn mhm. kese nga mën a am la dernière fois c'était euh, mooy l'ancienne meneuse bi euh, maanaam Jéeme Bintu Jéeme moom la gars yi jëloon mhm. euh, recalé ki nga xamante moo di maanaam Léna Timéra cette fois ci la même chose ñu jël américaine bi Sierra bàyyi ki nga xamante moo di Léna Timéra moo Umu Kalsum nag ñoom daal dañuy dañuy dañuy teggi yeneen yeneen ñi nag yeneen ñi nag Umu Kalsum ñaari ay ñaar maanaam ñaari meneuse lañu kenn ki yaa ngi ko wax léegi-léegi mu di Fatou Dieng ak ki nga xamante ne moo di Sierra Dilar ñoom daal ñoo a nekk li nga xamante ñoo di menuisier yi moo di maanaam Yacine Diop Kouna Ndaw ñoom daal ñoo nekk li nga xamante ne ñoo ñi nga xamante ne nag ñoo nekk li nga xamante ne ñoo di arrière yi parce que arrière arrière gars yi parfois dañ koy confondre bokk na ci ki nga xamante ne bokk na ci ki nga xamante ne moo di maanaam Fatou Pouy Aya Aya Traoré soxna Fatou Diasila Mathilde Aïcha Diop ñoom daal la ñu rek lañ jàpp ñoom ñoo nekk li nga xamante ñoo di alliés yi ñi nga xamante nag Adja ñu nekk xamante ne moo di Oumou Khayri Sarr ki nga xamante ne moo di Aïcha Ndour moom moo nekk 12 yi nga xamante moom la Moustapha Guèye génnee léegi léegi war a teewal Sénégal fële ci Kigali le 28 incha allah. alors euh, première impression naka nga gisee 12 yi nga xamante ne retenir nañ leen pour yow am nga ci surprise ou bien surprise amu boof euh, Adja euh, sélection moom foo mën ci gis rek foog mu am ñu si ànd am ñu si àndul mais le choix le plus important c'est le choix des coachs parce que moom mooy décider waaw am nañu yaakaar nag si équipe bi voilà ndax euh, gis nañ leen c'est vrai que man suivre ma leen parce que mm-hmm. dama amoon décès pratiquement un mois mi ngi nii mm-hmm. j'étais pas là j'étais à Ziguinchor voilà mais dégg naa sélection bi ñu def ah ñuy def euh, di ko rafetlu waaw parce que nit ku def sélection danga si rafet danga koy rafetlu. di am euh, yaakaar tamit que sélection bi indi ñu ndam di leen di ñaanal tamit ndam ndax euh, kenn du dem xare di naan dañ may gagné doo dem guerre di xalaat dañ lay ñàkk compétition boo si dem da ngay xalaat tout le temps surtout championnat d'Afrique que da ngay dem pour jël bi mais équipe bi c'est vrai que y a eu des des gis nañu que maanaam c'est vrai que c'est dans une équipe expérience dina si baax voilà mais tamit euh, booy def équipe tamit il est préférable pour man sama opinion la. Mm. voilà sama xalaat la nga jël maanaam euh, rajeunir maanaam mu am maanaam ñu gën a maanaam euh, ñi nga xam ne dañuy pare relève bi ñu ndaw ñu ëpp si que ñi am expérience parce que loolu daf lay permettre nga préparer sa relève voilà. gis nañ si tamit euh, que y aussi une joueuse ñëpp dégg nañ ko comme euh, Yacine il parce que toog na je sais pas combien d'années elle n'a pas compéti compétir du moins compétirul voilà mhm. boof mënu ñu si wax dara coach bi bu ko choisir peut-être que moom moo xam ne tamu choisir ko boof dun euh, la ñuy def lu doon xaar match bi pour ñu xool ndax moom dina trouver ses automatismes voilà ndax physiquement elle va tenir ou pas parce que nit bu compétirul tamit mënuñu si am yaakaar ni physiquement dina tenir si biir terrain waaw d'ailleurs gis nañ leen ay champion d'Afrique ñu joué physiquement amoon na ay manquement am ñu si bari daal ñu woon tenir voilà euh, y a eu aussi l'absence de Mame Marème Sy par rapport c'est vrai que ak expérience am et tout gis nañu tamit euh, ñëwoon boof dina manqué un peu équipe bi li tax ñëwun tamit boof coach bi moo ko xam tamit mm-hmm. voilà Bintou aussi euh, si absente si la bokk tamit on l'a remarqué elle a décidé d'arrêter ak équipe nationale elle a et la elle a ses raisons mm-hmm. voilà mais pour loolu tamit euh, yéen en tant que journaliste tamit normalement joueur ku mu mun ti doon muy football di basket bu ñu jógee chaque compétition wax ngeen di def benn plateau boo xam ne que invité lañ ñeen ñëpp dégg ngeen ngeen mën a xam lan moo xew ak lu xewul. moom waxoon na waxoon na bi ñu jógee afro basket 2021. Mhm. que wóoratul mu continuer après nag dina dem dina toog dina dina dina xaar. Mhm. bon d'accord c'est son choix. voilà on respecte son choix en tout cas équipe bi pour le moment. mënaguñu si wax dara lu ñuy def lu duñ ci leen ne que lu ñuy wax amuñu compétition wala am nañu compétition bof on le verra au ngi fii ou pas aussi bon justement man euh, je retiens le mot expérience ci sa biir discours parce que c'est une chose boo xam ne ça nous interpelle tous euh, je me dis que euh, dans cette liste là expérience mu ngi fi mais sont des choses yoo xamante ne tam gëj nañu ci biir équipe nationale bi sànq lim nga Yacine Diop mais man je vais m'arrêter sur le cas Yaya Traoré aussi donc sont des yoo xam voilà gëj nañu fi yàgg na soxla nañ seen expérience mais aussi li ma doon wax ci lay ñëwaat moom mooy euh, compétition africaine la ñu jëm ça demande des automatismes ça demande aussi beaucoup plus de présence par rapport ak li nga xam moom mooy la compétition donc ce sont des matchs yoo xam ne dina jege dina am intensité avec leur âge tey jii nii est-ce que tey cette expérience là bi mu del moom Tapha Gueye ko est-ce que newul une expérience de trop dans ce groupe là. yaa ngi may fekk si lu ma wax au début que man sama xalaat j'aurais aimé ñu rajeunir équipe bi qu'il y ait plus de plus voilà que des anciens joueurs yi nga xam ne que seen expérience ñu soxla. parce mais rajeunir nañ Afrobasket bii ñu mujj ça n'a pas marché. mais quart de finale la ñu la la ñu arrêté wu par rapport ak rajeunissement bi voilà. moom laa lay wax parce que équipe tout le temps des fois boo xam ne que amoo équipe boo xam ne que compétitive na il faut préparer sa relève moo tax il faut tout le temps mettre des jeunes yoo xam ne que grands yi ñi fa nekk anciens yi mën leen accompagner au moins au fur des matchs tamit dañu si gagner expérience mais tout le temps boo ñëwee basé wu uniquement euh, sur l' expérience aussi euh, doo mën a préparer sa relève mm-hmm. moo tax ma ne man en tant qu'ancienne joueuse lu ma si gis mooy j'aurais aimé que l'équipe soit rejeunie ñu préparer entre d'autres échéances yi nga xam ne au moins nañu mën a am une bon équipe donc pour cela il faudrait que qu'on mette des joueuses maanaam ñu fi nekk des joueuses euh, locaux plus que des joueuses euh, expatriées parce que dama gis tamit Sénégal dafa am benn complexe man pour man complexe la parce que ñun suñu temps ossature équipe nationale yëpp fii la woon Sénégal mhm. mais léegi dafa mel ni bu ñu jëloon américain jëluñu français jëluñu étranger pour ñoom naan duñu gagné wala amuñu équipe loolu maanaam ñàkk gëm ci sa bopp la. mais dem nataale doguma la mm-hmm. boo xoolee. booy dem tous les week-ends fi nga xamante moo di stade Marius Ndiaye wala si yenn si yenn euh, maanaam terrain mm-hmm. wax dëgg yàlla boo xoolee gars yi sunu sunu joueurs yi ñu baskettee boo xoolee wax dëgg yàlla euh, yàlla kese tax nga

mais ñooñu ñu ngi ci club aussi expérience en plus ñu ngi compétir xoolal xool kii Aya Traoré moo nekk moo fa Espagne moo nekk presque MVP saison bi xam nga tamit yooyu yooyu doo ko am dina laisser en rade alors ñoom am nga ay joueurs yoo xamante si sur les douze am nga maanaam neuf yoo xamante ne ay xale lañ trois gis ak ñoo si nekk mag ñu la accompagner moo tax ma ne la ñuy wax dara si équipe bi hmm. c'est le choix du coach on respecte son choix on encourage les filles mhm. dégg nga di leen di ñaanal yàlla may leen dam mhm. mais tamit au fur des matchs tamit ngay mën na tamit di gis euh, yenn voilà failles yi si loolu tamit ngay mën na di analyser mhm. voilà mais noo gisee ne mooy en mooy Leena Timéra li ko li ko dal daloon ko afro basket yi passé daal cette fois ci mu nekk dañ ba dem ba à la minute ñu wàññi ko euh, en faveur ki nga xamante ne moo di ah, Sierra Dillard loolu c'est le choix du coach waaw parce que bu amee ñaar ñi nga xam ne que c'est vrai que loolu mën na bu fekkee ne joueur bi amul mental bu baax mën na ko démoraliser. Ah voilà parce que un joueur aussi doit avoir un mental de fer voilà mantal boo xam ne que ñu jël la ñàkk la jël tout à tout dit que je vais revenir encore mm. mais bu fekkee ne joueuse boo xam ne que euh, mantalement voilà. Euh, elle n'est pas forte tamit loolu mën na ko pénaliser. Mhm. mais voilà tamit ça c'est le choix du coach nous respectons son choix. voilà ñoom ñu di ko wax tamit mu gën a redoubler d'effort tamit. voilà c'est loi du sport et expérience su Sierra boo moytul parce que jëmb aussi mi ngi koy wax ci papier boo mhm. moytul plaidé na en faveur de l'américaine parce que américaine bi elle joue ci fi nga xamante ne euh, moom mooy disputé na li nga xamante ne moom mooy championnat bu club yi fi nga xamante ne moom mooy fii ci Afrique Euh, euh, frotté wu na ak li nga xamante ne moom mooy le haut niveau du basketball africain te xam naa peut-être loolu moom moo déterminer le choix de Moustapha Gueye mais coach par rapport ak euh, list bi c'est vrai le dernier mot revient ki nga xamante ne moom mooy sélectionneur bi mais moment bi muy nekk ci diggante 14 yooyu surtout sànq Babou mi ngi koy wax Léna Timéra da ko daf ko retenir oon en 2021 cette fois-ci mu war ko reteniraat ci ci ban état d'esprit la ki nga xamante ne moom mooy le sélectionneur euh, di di di nekk dama ci buruxaale rek li nga xamante ne aussi moom mooy wàllu préparation bi ndax waroon nañ dem États-Unis finalement demuñu fii la ñu toog entraîné wu pour mu am peut-être une idée de son de son équipe ba moytul bu ñu demee Rwanda lay nekk bu ñu jouer ces deux rencontre amicales yi te war a disputer une une Coupe d'Afrique day euh, c'est c'est un peu serré pour pour lui voilà n'est-ce pas. waaw mais le choix moom c'est toujours difficile. je pense que entraîneur bu ne gagné nga bëgg. bu ñu la tànnee jiital la dénk la sas la jox la raay bi ne la ngay jël équipe nationale jël ko yóbbu ko jox la drapeau bi gàjj rek ngay gis bon coach bi moom je le connais c'était un moom coach bi il a pratiqué comme entraîneur du football d'abord Maguette sama waay la sama xarit la yàlla may na ko nag chance comme ni ñu koy waxee ci équipe nationale yi. Mm-hmm. mais je pense que ni euh, bon tànn dafa yombul. tànn yombul. ñun ñii sax parfois dañuy tànn ñuy critiquer mhm. mais képp ku ñu tegoon ci àdduna jël jiital jox la lu mel ni ay milliers de joueurs wala milliers de basketteurs nga tànn il faut toujours nga am choix yoo xam ne yow yaay xam ci yan base nga sukkandiku pour def ko parce que seul l'entraîneur moo mën a wax ni lii ak lii moo tax critères yi man mun naa apprécier wax sama xalaat mhm. mais entraîneur bi diggante ñaari jours bu demee ba tànn kii même bu ñu yemee même moom moo xam tax mu tànn kii mhm. parce que entraîneur bi en wax sànq moom la ñuy laaj parce que moom li ñu koy laaj mooy résultat au am choix mu dëggu ci wala mu am raison ci choix am wala soit mu juum ci choix am je pense que loolu moo nekk c'est pas quelque chose de facile mm-hmm. mais comme ni ñuy wax dañuy ñaan rek comme ni ñu ko waxee parce que tànn yombul te attente bi dafa fort mm-hmm. Sénégal toll na jamono yoo xam ne comme ni ñu koy waxee ay jamono basket moo fi doon indi trophée chaque fois saa yi ñu demoon nag dañu daan bégloo ñëpp waaw ah, du dëgg mm-hmm. après benn moment amoon na benn casse loolu du ñàkk ci àdduna waaye comme ni ñu koy waxee am nañu équipe boo xam ne mun na dem gagner n'importe qui di leen ñaanal incha allah yàlla teg leen ci yoonu jàmm ñu dem si jàmm dem ñafe gagné ji indi indiwaat fii et puis delloowaat basket bi ci niveau bu mu nekkoon. je pense que euh, dans tey Sénégal dafa am benn soif de trophée boo xam ne moom ñu envoyé tey euh, ngay préparer une compétition de ce genre. Euh, durant des années yoo xam ne tey basket Sénégal kenn xamul fi mu xaw a taxawee quelque part donc dans la tête du coach ngay préparer une compétition de ce genre nga sukkandiku tey ci une équipe boo xam ne dañ na woon. dafa nekkaat la reconquête léegi nga miser tey si expérience mais ci biir expérience yooyu ce sont des choses yoo xam ne maanaam booy xool seeni statistiques mënuloo ko tey par exemple xëy na xayma ci kaw un tournoi international du genre mhm. donc dans la tête de l'entraîneur au moment de faire ces choix lay tey euh, ci biir groupe bi dans la préparation comment ça se passe en fait parce que aussi ce sont des yoo xam ne tey askan bi dinañ dinañ toog xaar entraîneur entraîneur bi tey nekk ak di yeewandoo di fanaan ak ñoom di entraîner ak ñoom kooku rek yow da am sa xalaat di ko wax mais ki nga xam ne mooy teew chaque jour moo la mën a wax performance jour bu ne moo mën a xool aussi par rapport ak couple ñu war a mën a ànd moom mu def choix en fonction de mu bëgg mais loolu kooku li ñu koy laaj dara rek lañ koy laaj mooy résultat lu li nga wax sànq préparation bi ñu war a def États-Unis mu peut-être mu xaw loolu peut-être mun na kii mais pour man malgré tout pour man euh, entraîneur bi compétiteur la pour man parce que Sénégal ñëpp xam nañu conditions yi demeewul noonu ñun ñuy dem coupe du monde amuñu woon match foofu dinañ fa ñëw. waaw mais c'est pour àdduna moo demee noonu. mais parfois dans la tête da ngay adapté wu parce que entraîneur aussi parfois nga adapté parce que adapté pour man entraîneur bi Maguette c'est un compétiteur c'est quelqu'un qui est bien et puis qui maîtrise bien son groupe. di ko ñaanali Moustapha mm-hmm. di ko ñaanali yàlla yàlla defal ko jàmm mu dem si jàmm et puis vraiment li nit ñi di xaar. mooy trophée bi dellusiwaat Sénégal yàlla defal ko ko et puis loolu pour Sénégal yëpp la am te mbégte pense que ni c'est pas impossible c'est possible encore. d'accord alors dinañ gën a ñëw léegi ci liste bi mais Babou on va donner la parole aussi à une ancienne championne d'Afrique euh, Fatou Kiné Ndiaye moom aussi dellusiwaat na ci gis-gis bi mu am ci groupe bi ak peut yaakaar bi par rapport ak Afrobasket bi ñuy jëm. voilà moom euh, taalal nañ ko li nga xamante ne moo di sunu micro moom daal wax ne li nga xamante ne mooy maanaam xalaatam parce Euh, ki mu ngi koy wax ne ñoom presque ossature bi yëpp fi la basé woon fi nga xamante moo di maanaam euh, Sénégal mais teewul neen jamono jooju daamoon ay dirigeants yu baax am li nga xamante ne moom nag jàpp na ne équipe bi am na si yaakaar bu baax a baax juste lu mu ci xaw rek mooy lii di ma mooy manque de préparation bi nga xamante ne am nañ ko ñu xool réaction bi ñu wax ci plateau bi suñu génération nag c'est vrai que marqué nañu Euh, parce que boo xoolee ci onze onze onze titres yi ñu am waaw vraiment kooku succès bu mag la et vraiment c'est du que dañu amoon formation bu baax amoon ay dirigeants yu baax amoon euh, ay président fédération yu baax ak ay club yu dëgër tamit euh, club à l'époque ñoom ASPO bopp JA Jaraaf Wakam vraiment avec des joueuses yi nga xamante ne euh, joueuses grande grandes joueuses amoon na aussi yu nga xam tam dañ doon jóge ci région yi Bona Bonaventure Carvalho moo leen doon indi dugal leen ci club yi mu nekkoon vraiment championnat bu dëgër vraiment Bonaventure Bonaventure Carvalho aussi Euh, c'était comment comment père suñu lépp la doon gérer. Euh, jàng bi tamit dañ doon defa defoon sax étude sport bu nga xamante ne vraiment tout au long de l'année def ñu doon gérer ce qui fait que équipe nationale bu ñëwaan pour def sélection sax problème la woon. amoon na ñaar wala ñett équipe nationale yu taxaw donc vraiment euh, base bi yëpp fii la woon. waaw moo taxoon mu dëgër. base équipe nationale bi yëpp fii la woon joueuse yëpp fii la woon amoon formation bu dëgër nekkoon amoon ay dirigeants yu baax nekkoon amoon vraiment format amoon vraiment euh, de grandes joueuses ici locales loolu la woon moo doon suñu force mais époque yi dafa changé léegi boo seetloo léegi équipe nationale bi yëpp presque ñiy jouer à l'étranger ñoo ñëw nekk équipe nationale. presque sélection bi ñu def nii kenn ci joueuse buy jouer ci championnat local rek moom la ñu jël ci ci ci présélection bi loolu mooy différence bi je pense. ah équipe bi ma gis nii vraiment euh, am naa ci yaakaar euh, parce que contrairement ak ni ñu defoon la dernière fois dafa bëri woon ay jeunes mais nii jël nañ ay euh, ay filles yu nga xam ne ab dañu am expérience def nañu wala deux wala trois championnats d'Afrique ñu jël leen boole leen ak ay jeunes aussi am naa ci yaakaar ni que ni bu ñu demee. dinañ mun a mun a am dara. li ma xaw a ragal tuuti rek mooy compétition yi xam nga équipe booy préparé da ngay def ay match de compétition loolu la ñu amul lu doy rek loolu rek laa ci xaw a ragal mais je pense que équipe bi am na am na ay ay ay ay entraîneurs yu xarañ et puis joueuses aussi am nañ expérience yu am expérience yu nekk ci biir yaakaar naan bu ñu demee dinañ mën a am dara daal. basket bi delluwaat ci niveau bu nu mën a nekk balaa ngay wax international da ngay defar sa basket local d'abord. voilà suñu ndaw yi moom la ñu moom la ñu war moom la ñu ñoom la ñu war a gérer defar leen fii gérer leen am un championnat vraiment petite catégorie bàyyi ci xel bu baax vraiment gérer suñu jeunes yi ba nga xamante ne vraiment dinañ am ay ay ay xale yoo xam dañ leen di former am formation bu dëgër comme ñun ni ñu amoon à la base je pense que loolu nañ defar suñu basket locale bi. Kiné Euh, championne d'Afrique euh, moom ci Afrobasket 1981 bien avant génération ñoom euh, Nathalie tuuti la leen jiito balaa muy dem aussi parce que moom dafa am double nationalité dem aussi compétir fi nga xamante ne moom mooy fële ca France pour vous dire li nga xamante ne moom mooy formation bi ni mu meloon et c'est l'occasion parce que démb bi ñu waxtaanee ci li nga xamante ne moom mooy lël bi le nom de Bonaventure Carvalho est revenu à plusieurs reprises un grand technicien boo xamante ne qui a marqué l'histoire du basketball euh, euh, sénégalais à lui tout seul je pense qu'il a remporté minimum deux à trois wala cinq afrobasket parce qu'il a fait presque vingt ans à la tête de cette sélection nationale euh, mu dem ba ñoom ñëpp ils sont unanimes ci ñi jaar ci ay loxoom nekkatul woon entraîneur pour ñoom c'était un papa c'était un mentor donc moment bi dafay baax aussi ñu profiter ci tribune yi jaajëfal de sénégalais yoo xamante ne qui ont tout donné euh, pour euh, leur pays euh, ku ci mel ni Aya elle disait Rokhaya Aya Pouy que des fois daf leen daan travailler ci seen mental même suñu amul lu ñu lekk sax daf leen naan entraîné wu leen bu ngeen amul fu ngeen tëdd dem leen ngeen tëdd fi nga xamante ne moom mooy moom mooy Marius Ndiaye mais l'essentiel c'est de défendre les les les couleurs nationales te loolu aussi dañu ko dañ ko soxla Nathalie. Euh, tout à fait Adja bi tey je pense que sama euh, fat ki Kiné wax na ko yëpp. parce que euh, monsieur comme euh, Bonaventure Carvalho kooku kenn du ko mës a fàtte si parce que moo Sénégalais. ndax euh, je me rappelle bien il disait tout le temps que je veux faire de vous des dames et non pas des basketteuses donc ces grandes dames yi nga xam ne que tey nekk nañ ko tey fii su ñu réew nous le devons surtout à Bonaventura Valo voilà c'était pas seulement un coach mais un père aussi papa la woon si ñu ñëpp voilà lu ñu doon nekk sa ensemble suñu biir moo doon ëpp que lu ñu doon nekk suñu famille je me rappelle même des jours de fête tabaski muy Noël Pâques te daan entraîné wu le matin ba pare too ko ñibbi dem fekk suñu biir kër loolu tey ñemetoo ko def benn joueur ni nga ko waxee léegi effectivement compétition daan na am du ñu am lu ñuy regroupé woo mais on se regroupe sauf tout le temps sous les escaliers de Marius Ndiaye suufu escalier yi foofu la ñu tuddee woon sa hôtel Dior. <laughs> voilà hôtel Dior c'est à moom lu ñu tuddee woon euh, hôtel Dior voilà on dormait sous les escaliers fa la ñu daan fanaan des fois si autour du stade du yëpp uniquement pour lan. voilà pour indil ndam suñu Sénégal euh, suñu réew mais dafa di loo xam ne que tamit dañ ko buggoon tamit voilà nekkoon de vrai patriotes on le faisait uniquement pour l'intérêt maanaam euh, du basket dañ ko bëggoon pour l'amour du basket bu ñu amoon ñu ñëpp léegi da ngay xool am na ñoo xam ne que tey ñu bare tey sport bi ñu bare lan lañ ko def léegi maanaam business la voilà c'est du business et c'est normal aussi parce que tamit àddina tamit dafay dox tamit mm-hmm. voilà dafay dox mais vraiment une personne comme Bonar vraiment kooku moom vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla fee mu nekk yàlla na gën fu mu jógee. amiin voilà ak yeneen entraîneurs yëpp fi jaar tamit ñu fi ngi koy ñaanal tamit. Nathalie euh, joueurs yi parce que toog nañu leen ànd ak ki nga xamante ne moom Moustapha si préparation parce que man jàpp ne war na mat léegi weer. li nga xam compétition bi li si bëreetul de suba sax lañu jël li nga xamante mooy drapeau drapeau bi drapeau national fële ca léegi ñu laaj euh, may rek. ñoom fekk nañu un mois mais dafa amuñu li nga xamante ne mooy maanaam ay confrontation ay match de préparation ñu ko nar am bu ñu demee fa léegi maanaam ci Kigali ñu wax ci deux matchs suñu reporter mu ngi koy wax léegi léegi ñi ñoo ñoo ko Rwanda ak ñi nga xamante ne ñoo di waa RDC est-ce que tamit nga jàpp na loolu euh, euh, di baax dina baax ci maanaam à deux trois jours ñu dugg ci li nga xamante ne moo di euh, loolu mën na indi tamit défaut tamit. entre les joueuses wax naa ko sama début nee naa la au fur des matchs ngay mën a di xool lacune yi xool ndax automatisme yi ñu ngi fi ndax tamit euh, euh, cohésion bi entre joueuses yi tamit tamit mi fi parce que équipe tamit il faut ñu tàmm di jouer ensemble tamit mais Sénégal dafa tàmm tamit loo xam ne que tout le temps au dernier moment mm-hmm. ñi fi nekk tout le temps mun ñu fi nekk nga am compétition un championnat d'Afrique ça se gagne pas en un mois ou en deux mois un championnat d'Afrique ça se gagne sur une année deux ans même je euh, pense que loolu coach ne me démentira pas xam na si dara avec euh, feu Bonaventure Carvalho muy ñoom Bisnal feu Bisnal ñoom feu Mbaye Guèye dégg nga feu Ousseynou Ndiaga Diop ñi fi nekkoon yëpp les des grands entraîneurs mais nous on s'entraînait mën nañu toog championnat d'Afrique deux ans du ko préparer dans la semaine même on s'entraînait que deux fois dans notre club dans nos clubs lundi mercredi vendredi c'était à l'équipe nationale di préparer te fekk compétition dara ñëwagul mais yooyu yëpp bàyyi nañ ko mm-hmm. bàyyi nañ ko compétition nag ku nekk dafay jógee fu nekk bu nekk boo ñëwee ku si nekk am nga sa façon ni ngay jouer mais tamit i faut ñu nekk ensemble di entrendoo ensemble dégg nga pour ñu mën a déggoo voilà cohésion bi mën a ñëw entente bi mën a ñëw mais quand même am nañ si yaakaar. ndax euh, am na ñoo xam ne que tamit euh, même bu fekkee ne tamit c'est vrai que entre ñoom amuñu ko mais majorité bi seen biir ñu ngi Europe ñu ngi jointe seen biir. voilà donc on on peut compter sur ça. voilà et je vu aussi que euh, équipe bi ñu fi yore nii man moom laa gën a am yaakaar que équipe bi passé Euh, voilà. d'accord mais quand les douze là. Euh, voilà moom moom laa gën a am yaakaar que équipe bi passé voilà mais li ma waxoon rek au début moom la sama sa fàttali ki ñëwaat tamit mhm. maanaam physique condition physique bi mooy wane que regroupement yi teel ñu ko commencé en un mois ou trois semaines on peut pas préparer un championnat d'Afrique physiquement il y a des joueuses comme vous l'avez constaté comme tout le monde ñoo xam ne que des années compétiruñu ñii tamit dañuy toogoon lu yàgg doo ko reprendre tamit on ne sait pas si physiquement ils tiennent ou pas mais quand même bu dem ni ko sama coach waxee léegi boo toog ak ay joueur am si biir regroupé wu di entraîneur ak ñoom moom moo xam ko si nekk manquement bi nga am ak manquement boo amul. d'accord voilà te surtout am na expérience bi. remporté na deux afro basket mais aussi par rapport ak préparation bi parce que dimanche rek maa ngi koy wax. c'est une coupe d'Afrique Sénégal war a dellu siwaat moment boobu mu am ay nations yu émergé am ñoo xamante ne taxaw nañ déjà ñun groupe bi ñu nekk am nañ adversaire de taille muy le le le le Mali euh, donc am na ci loo xamante ne c'est pas du ressort du sélectionneur parce que moom li mu mun mooy convoquer Euh, organiser li nga xamante ne moom mooy regroupement bi mais am na ci yoo xamante ne c'est pas de son ressort ça va au-delà ngi xaar team manager bi ngi xaar li nga xamante ne moom mooy liggéey bi fédération bi di def avant loolu yëpp nag liggéey la boo xamante ne liggéey d'ensemble liggéey d'équipe pour permettre li nga xamante ne moom mooy équipe bi nekk ci li nga xamante ne moom mooy performance pour mun ko permettre li nga xamante ne am nañ ko comme prétention cette fois-ci nekk ci podium bi wala sur la plus haute marche du du du du podium Greg peut-être la la la la question balaa ñuy ñëw aussi. Euh, ci ndaje bi nga xamante ne ANPS ab amaloon na ko toujours ba léegi ci cadre basketball. waaw parce que xam nga sànq Fatou dafa tudd euh, le basketball local. on peine à retrouver tey ces joueuses là dans dans la sélection pourtant bu ñu xoolee le niveau bi nga xamante ne le basketball féminin am na ko au niveau local mën naa tey lim GIA mën naa lim DUC mën naa tam dem Saint-Louis basket club ak euh, AS Ville de Dakar surtout. mais tey on peine à les retrouver qu'est-ce qui se passe c'est un problème de gestion au problème gestion mais boo xoolee avant les grands clubs yu fi nekkoon Jeanne d'Arc Jaraaf Bopp AS Fonctionnaire ainsi plusieurs clubs ñu fi nekkoon pratiquement c'était des clubs yoo xam ne que on avait de bons dirigeants dirigeants comme euh, l'a dit ma sœur euh, Fatou Kiné. ah parce que démb aussi loolu génn na ci réflexion bi. tout à fait de bons dirigeants. Mm-hmm. de bons techniciens. Mm-hmm. après am aussi des joueurs de qualité. Mm-hmm. loolu moo andi woon réussite u basketball au Sénégal. mais boo xoolee léegi meilleurs joueurs yëpp ci trois clubs lu ñu recoupé wu. ces trois clubs ndax lan parce que ce sont des yoo xam ne que ce sont des clubs de l'État boo xoolee Duc. c' est l'université c' est l' boo xoolee UGB c' est l' état boo xoolee ay douane c' est donc c' est c' est des yoo xam ne que ñoom ils ont les moyens bon ce sont ce sont les moyens de l' état nos moyens ñun yow di man di keneen mais club yi nga xam ne ko mooy li ma la waxoon Jeanne d'Arc ay see bopp waaw ñi ngi ñëw parce que équipe bu mag du deewu ko ah. <laughs> <laughs> voilà boo xoolee ñun moment boobu on avait de bons dirigeants ay président euh, feu Madeleine Kane mm-hmm. qui était la maman de Coco Barry bébé Barry voilà y avait euh, sama président euh, comment il s'appelle encore euh, Benga y avait Maud Diop Euh, il y avait qui encore euh, Badou Sandal Sport. voilà et des dirigeants yoo xam ne que vraiment dégg nga ñu bëggoon sport. Jeanne d'Arc du équipe bu tuuti. Mhm. voilà pratiquement boo xoolee Sénégal mën naa ne les grandes personnes les grands hommes pratiquement beaucoup d'autorités ce sont des GIAMAN parce que GIA équipe boo xam ne que la équipe bu mag la. Mhm. donc ils euh, acceptaient de mettre les moyens mais bu ñu demee tey ba nga xam ne que ñooñu ñëpp bàyyi nañu tey. dégg nga comme ni ñu ko waxee c' est la politique euh, la politique de la chaise vide bu amatulee kan ce sont les supporters qui sont obligés de venir et de prendre le club ñoom ñoo fi n'ont pas du tout les moyens peut-être que am na ñoo xam ne que si bon ils peuvent mettre la à la pâte et tout mais y a d'autres ñoo xam ne que ils n'ont pas les moyens de ce fait que beaucoup de gens maintenant sont je dirais pas dans les clubs mais dans le basket te yëpp lu ñuy viser mooy ñu egsi à la fédération ils sont uniquement là-bas des fois ñu si bari pour des problème personnels voilà mais pas pour l'amour du basket voilà dañuy dem ba nga xam ne que nu ñu ko mënee wax daal basket bi léegi euh, business bi daal moo si ëpp business bi moo si ëpp voilà mais loo xam ne que du loo xam ne ko on le fait par par par amour voilà et puis loolu tamit dafay yàq et puis aussi euh, Fatou Kiné wax na ko aussi euh, championnat bi mënatul maanaam. am li nga xam ne que amoon nañ ko avant muy ossature équipe nationale nekk des locaux parce que tamit boo xoolee championnat bi tamit léegi ni ma ko waxee pratiquement y' a de championnat. Mm-hmm. yoo xam ne bu ñu joué des balaa ñuy joué waat yàlla xam. voilà politique euh, maanaam bu fédération boo xam ne que vraiment un calendrier mal organisé. la quoi dëgg yàlla gars ah, euh, c'est vrai et ça tamit waaw ñu ngi si félicité tamit mais là aussi il faut féliciter aussi ñi nga xam ne que ñoo bëgg basket bi nekkoon fi tamit di si di maanaam di xeex tamit pour intérêt basket bi di waxte boo gisee coppite yu bari yu fédération indi tamit c'est par rapport à li nga xam ne que ñun ñi nga xam ne que ay anciens basketteurs basketteuses yi fi nekkoon doon ko ñoom gis naa bi ñu ngi jël si suñu euh, doléances yi nga xam ne que ñu ngi ko doon wax pour avancement parce que bi ñuy jël tamit di apporter des changements donc on dit chapeau. d'accord voilà euh, day tax sax euh, Babou il faut ñu avancer très rapidement day tax sax ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi ANPS organisé woon euh, démb euh, ci benn hôtel de la place euh, moom le président la fédération sénégalaise de basketball maître Babacar Ndiaye sax yëkkati na ci kàddu ne lépp loo xamante ne waxtaanee nañ ko les acteurs la presse sportive nañ ko jël jox delloowaat leen ko bu ko defee ñoom aussi ñu boole ko ci li nga xamante ne moom mooy seen feuille de route day tax ñu gën a am li nga xamante ne moom mooy visibilité par rapport ak seen liggéey euh, day tax ñu jox leen kàddu moom ak le président de l'ANPS Abdoulaye Thiam président aussi de AIPS Afrique au micro de Kadior Cissé et Pape Diop. voilà euh, Adja ni nga ko waxee noonu la euh, parce que chaque anne maanaam compétition bu mag bu waaj am rek. ñi nga xamante ne ñoo di journal sportif ñu bokk ci lël bi nga xamante ne mooy maanaam AMPS dañu organiser maanaam ay panel maanaam def ci ay thèmes yu xamante ne ñii mu di football di basket di handball saa bu ñu amee am benn maanaam day day maanaam day oo expert gars yi waxtaan ci li nga xamante moo jëm ci wàllum discipline bi cette fois mooy ki nga xamante moo di président euh, Boun euh, Boun Daouda nekk suñu baram nekk ci bokk ci consultant kër gi kii di président Abdoulaye Thiam ak ki nga xamante mooy maître Babacar Ndiaye yéen a njaabi ci tam yi nga xamante ne maanaam tëraloo nañu ko fa yaakaar ne bu boobaa suñ si pare daañu ko maanaam jëmmal ñu xool seen ay réaction ñaar ci plateau bi Euh, ñun ANPS depuis un certain temps à chaque fois bu amee compétition bu jëm ci football wala bu jëm ci basketball wala bu jëm ci beneen discipline dañuy defee dañuy def suñu kéemtalaay kattan pour réunir nit ñi yëpp ñu xool lan la ñu mën a def pour Sénégal bu demee mu am fa jaloore. donc euh, defoon nañ ko en 2021 defoon nañ ko en 2015 ci basket ñu ngi koy waaj a def aussi parce que xam ngeen à partir du 28 je crois ou le 26 Sénégal dafa war a tàmbali li nga xam ne moom mooy afro basket euh, bu féminin defoon nañ ko si football bi mu jig ñu ñu ngi koy defaat aussi si basket bi ñu ngi ñaan yàlla rek euh, autorités yi ñu fi réunir tey ak état bi ñu fi teg ñoom ñëpp ñu xool naka lañ mun a def pour accompagner sunu lion yi comme ça au soir du cinq euh, août incha allah ñu jël raaya bi indil ko Sénégal. damay remercier le président Ablaye Thiam ci initiative bi remercier les membres du bureau ANPS ak tous les journalistes membres de l'ANPS parce que lii lu rafet la euh, xam nga moom booy jiitee discipline ñu woote ñëw ne dañ ciy waxtaan pour xool nan lañ ko mën a développer doo mën a def ko muy tàcc donc thème yi aussi am importance ñu koy animer aussi. nekk ay sommité si moo tax ma yoon daal bëggoon naa bu yi ñu transmettre ko fédération pour ñu étudier ko Voilà, c'était la réaction de Maître Babacar Ndiaye, président bu Fédération sénégalaise bu basketball lancé na aussi beneen appel ndax gis nañ li nga xamante ni moom mooy football bi euh, seen slogan. bi maître Augustin Senghor euh, di laajaat beneen mandat muy manko wuti ndam li moom aussi la même chose euh, la lancé ne jot na ñëpp def union des cœurs pour ñaanal li nga xamante ne moom mooy gaynde yi suba ñu jël li nga xamante ne moom mooy le drapeau national mm-hmm. le 20 incha allah ni ko jëmb waxee elles vont s'envoler dem fële ca Kigali continuer li nga xamante ne moom mooy waajtaay bi euh, cette fois-ci on espère qu'elles vont faire mieux qu'en 2021 euh, fële ca ca ca Cameroun euh, ñi ngi ñëwaat léegi balaa ñuy jeexal ak Nathalie parce que faw ñu ñëwaat aussi ci li nga xamante ne moom mooy expérience am mais surtout li leen ñu ñu ñu réussir pour peut-être mu servir de source d'inspiration désormais seen i seen i rakk seen i cadette ñu war a dem représenter li nga xamante ne moom mooy les couleurs nationales mais très rapidement dañuy dugaale euh, ci ci football bi ak euh, tirage au sort bu coupe du monde 2026 les protégés d'Aliou Cissé sont désormais édifiés sur le prochain adversaire Babou Ndour voilà Adja dafa ñu ko li nga xamante ne nag moo di tirage bi euh, Sénégal ndax xam na ñu ñan la bokkal vraiment ñu bëri dañu jàpp ne maanaam nekk na euh, tirage bu xaw bu maanaam bu yomb mais ñi nga xamante ne yëngu ci wàllu football nee nañ tirage du euh, maanaam pour du jaayante la ba génn ci parce que am nañ ay derby yoo xamante ne war nar nañ ci am surtout sunu naataango yi nga xamante ne ñoo nekk ci fii rek di waa Mauritanie léegi dañuy xool jàngat bi Adja après ñëwaat ci plateau bi. gannaaw juróom benn weer bi coupe du monde bi jeexee nag ñu ngi jàppale jëm 2026 nga xamante ne ñu ngi war a door qualificative yi waaye laataa loolu amal nañ tirage au sort bi te ñu ngi ko doon amal gannaaw bi confédération africaine de football doon def assemblée générale am fële ca Abidjan ca Côte d'Ivoire am nañ ay affiches yu neex a neex. ñu koy tàmbalee ak Sénégal mi nga xamante ne mën nañ jàpp ne bokk na ci poule bi gën a metti ndax mu ngi ko bokk ak RDC Mauritanie wala sax Togo. tamit am na yeneen groupe yoo xamante ne ñu ngi wax ne groupe bu relevé la ndax boo ci nattee kii di Gabon Côte d'Ivoire ak équipe bi nga xamante ne moo di Gambie mën nañu wax ne ci chapeau 1 bi ki nga xamante ne moo gën a ñàkk chance moo di waa Mali ndaxte ñoom dañu daje Ghana moom mi nekkoon ci chapeau 2 bi nekk meilleure équipe bi waaye équipe bii di marok moom mën na jàpp ne tirage am neex na ndaxte du daje ak benn équipe bu mag te daa mel ni li ni mel moo dal équipe bii di Algérie waaye ñii di algériens yi ñu ngi bokkoo groupe équipe bi nga xamante ne moo di waa Guinée. gannaaw coupe du bii di ñëw nga xamante ne mu war a doon 48 équipes Afrique dina am juróom-ñeenti place d'office waaye benn boo xamante ne si barrage nga koy jaar pour mën kaa am te pour gën a yombar mbir yi waa CAF dañoo jël li nga xamante ne moo di 54 pays yi ñu xaj ko juróom-ñeenti groupe ci juróom benn ñu wax ne équipe bu jël pee ci groupe am day qualifié d'office ci mondial bi te lii di qualification yi dana door novembre bii di ñëw alors euh, mu nekkoon tirage boo xamante ne amal nañ ko en marge de l'assemblée général ordinaire euh, fële ca Côte d'Ivoire rawatina ca pays réew ma di Abidjan ndax ci fàttali xam ngeen ne dëkk boobu moom moo daal war a daral prochaine Coupe d'Afrique des Nations seniors euh, diggante weeru janvier bala ñu dëgmal ak weeru février en 2024 waaye ba ñu jógee ci bile tirage ba bokk ci mel ni Gianni Infantino aussi yëkkati na ay kàddu di patron football mondial moom daal li mu wax li ko gën a neex mooy maanaam 54 euh, maanaam euh, cont euh, 54 pays yi nga xamante ne moo nekk ci continent bokk ci tirage bi loolu ko gën a neex ñu xool réaction bi ñoo si plateau. on vient de voir le, le gis nañu ni tirage bi demee muy doon lu njëkk fii ci Afrique dëkk yëpp bokk mu di cinquante 54 dëkk yëpp participer ci li nga xamante ne moo di tirage coupe du monde 2026 bi dëkk bu nekk nag dina jouer 10 matchs lu mësul am. ndax neuf groupe la de six ñiy njël premier nag ci seen ay groupe daañu qualifié directement ci coupe du monde bi ak benn boo xamante ne euh, benn équipe maanaam bu war a jaar ci barrage yi. lu baax la pour euh, football africain di am mbégte bu baax a baax di féliciter waa Côte d'Ivoire ñoom ñi nga xamante ne ñoo amal lii di assemblée générale bi nga xamante ne fi lañ jaar organiser li nga xamante ne moo di euh, tirage bi. La Côte d'Ivoire de de nous avoir permis de l'organiser voilà c'était la réaction du patron du football mondial Gianni Infantino mu ñëwaat ci formule bu yees bi ndax coupe du monde bi nga xamante ne génn nañ ci mooy ba amoon fële ca Doha ca ca Qatar foofu 32 équipes la woon léegi mhm. nag dañ ko yokk désormais c'est 48 équipes ñoom ñoo nar a fa li nga xamante ne moom mooy diggante États-Unis Canada ak Mexique ndax ci ñetti réew lañ nar a amale bile compétition ndax 48 pays euh, 48 nations dafa c'est c'est énorme donc trois pays ñoom ñoo ko nara ak accueillir looloo war a cette fois-ci ñu amal nag ab formule bu yees cette fois-ci 54 nations yi nekk ci Afrique yëpp. Mhm. dañ leen di boole bu ñu leen boolee nag ci li nga xamante ne moom mooy neuf ci poule bu nekk dinañu retrouver wu ci li nga xamante ne moom mooy. six nations looloo waral nag Sénégal nekk ci li nga xamante ne cette fois-ci moom mooy euh, groupe euh, B bi Babou ma bàyyi la coach. coach premier commentaire ci li nga xamante ni mooy euh, poule Sénégal parce que ñu bari dañu jàppane dañoo gis tirage bi rek gis maanaam équipe yi nekk rek ni ah Sénégal dañuy dañoo laal basan <laughs> loolu xalaatu nit ñi la mais am nga football kenn du ko décréter. Mhm. li am solo bu am solo mooy ñëpp gis nañu taxawaayu Sénégal jamono yi. bon bi Sénégal jëlee coupe d'Afrique bi bu ñu xoolee ci aussi phase de poule coupe d'Afrique bi bu mu waatee gis nañu équipe bu sérieuse équipe bu disciplinée équipe vraiment boo xam ne il joue avec le kër la preuve bi ñu nulé contre le Togo match bi ñu nul est passé contre. Mhm. Mozambique Mozambique bi ñu nulé 1-1 avant le match contre le Brésil amoon na ci coow ay grincement de kër gars yi commencé casse bi ñu demee jeu Brésil nit ñi gëm nañu seen équipe léegi. am na ñu war nañu mën a natt Sénégal fu sori. Mhm. loolu yëpp du dara liggéey rek moo ko maye. Mhm. c'est-à-dire que le gars il maîtrise bien son équipe il maîtrise bien son groupe. après parfois moom am na ay retouches yoo xam ne boo xoolee ci prends Gana Gueye sur le mets sur le banc à l'absence de Sadio Mané pendant la période de la Coupe du Monde l'équipe est passée au premier tour contre même l'Angleterre avant le but il a même deux de but qu'on a raté avant même même les remplaçants qui ont joué contre le Brésil le milieu terrain qu'il a créé mm-hmm. vous avez vu une bonne équipe milieu terrain bu am taxawaay am impact am rigueur et puis du jeu je pense que gagner Brésil 4-2 il n'est pas donné à n'importe qui de le on peut gagner un Brésil mais humilier le Brésil c'est pas facile mm-hmm. parce que Brésil c'est un champion c'est un grand champion donc loolu moo tax ma ne euh, tirage moom c'est vrai comme ni nga wax sànq match yëpp amatul équipe bu ndaw football amatul loolu équipe tànn équipe ay Mauritanie ay Togo ay Bénin yooyu amatul ci football ñëpp ngi liggéey parce que ku nelaw gaay romb la. Mhm. parce que ku ci nekk yaa ngi def ay infrastructure yaa ngi jël sa coach yi yóbbu leen di leen former yaa ngi jël say jour tàngat leen def ay centre de formation ci dëkk yi donc kenn nelawatul ñëpp a ngi liggéey nañu gëm suñu bopp ñu sax ci li ñu sax bañ a naagu am humidité mhm. continuer ci liggéey bi am coach bi confiance yi moom moom mu préparer compétition yi bu baax di jouer les les uns après les autres di gagner ay matchs am avancer ba yàlla def mu qualifier ñun loolu la ñuy ñaan jeex mais coach est-ce que tey boo boo xoolee des équipes comme le Soudan le Sud Soudan la Mauritanie. Mm. Euh, Sud Soudan ñaari Soudan yi sax laay wax. Mm. sont des pays yoo xamante ne ni des pays extrêmement compliqués ci wàllu football en termes de climat environnement ak yooyu noonu la Mauritanie c'est presque le Sénégal à prime laay wax. Mm. c'est un derby de la sous-région. Mm-hmm. la RDC mu ngi en reconstruction mais terewul sooy équipe boo xamante ne aussi mm-hmm. elle est extrêmement redoutable surtout à la maison. Mm-hmm. donc tey. jouer face à des équipes yoo xamante ni tey sur le papier sur le terrain yaa ëpp doole. Mhm. est-ce que tey c'est pas là la difficulté pour l'équipe nationale du Sénégal qui revient surtout de cette Coupe d'Afrique là. mais yow loo gisee entraîneur bi gis nga ko ci ay waxam ci discours am muy wax wax yu ñàkk fayda wala muy jël affaire di ko jël à la légère. loo gis moom. mais benn match rek lay joué. de mais moom mu ngi koy transférer si équipe am. Aliou son contrat prend fin en 2024 mars 2024. waaw benn match rek lay joué. waaw mais xam nga bon comme dañu. li ci des li ci des moom ce ne sera plus de son ressort. Ah. loolu aussi il faut ñu xalaat ko de. ah loolu peut-être que la fédération est en train de travailler sur sur sur sur ça mais son contrat prend fin peut-être qu'il va poursuivre peut-être l'aventure mm-hmm. on sait pas peut-être que mais man li ma mën a wax ci li Grégoire wax mm. mooy li nga wax yëpp am na mm-hmm. football il y a plus de petite équipe mais Soudan ñu ngi investir seen dëkk. Mhm. ñu ngi jël ay sénégalais ñi leen di fay. Mhm. jël ay coach yoo xam ne ay coach yu mag lañ comme Emengue président mhm. euh, entraîneur euh, république démocratique Congo. ñu nekk fa Ibenge muy muy liggéey ak ñeneen ak ñeneen gis nga ci champions league bi xaw na xañ ahli qualification. ci coupe yi donc ñu ngi liggéey. nee naa la ñun ñoo fi nekk di wax rek mais ñi suivre football di dund football. xam nañ ni kenn nelawatul. li am solo ba am solo Sénégal mu ngi ci lancé bu baax. ku jóge ci coupe d'Afrique ñëw ñun ñu foogoon ni mais ba léegi waa ji mu ngi ci tempo bi booy ñu ngi liggéey l'équipe est très sérieuse vraiment l'équipe gagne ses matchs vraiment te nit ñi gis nañu aussi vraiment euh, vivier de joueurs yi nga xam ne Sénégal yàlla may na leen ko jamono yi ñu bañ catu suñu bopp boo xoolee ba ci relève bi nit ñi tiitatuñu parce que boo xoolee ba ci équipe U20 yi yi am na xale yoo xam ne yu bëri ñu ngi poussé ñëw donc pour man c'est pas un pour man jouer ak Brésil jouer ak Argentine jouer ak Bénin il on a jour joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats actuellement du monde c'est vrai que am na ñu nekk pays golfe bi mais jamono ji golfe bi ñu ngi def investissement boo xoolee ay joueurs yi mag la ñuy jëlee ci Europe di leen dugal biir golfe bi donc pour man football noonu lay doxee. Mhm. et ñoom dañu bëgg a organiser coupe du monde ñu ngi tànn les meilleurs di leen dugal championnat bi donc attraction ak la ñuy seen championnat donc pour man amul problème. le plus important mooy ñu bañ a sous-estimer kenn. Mhm. ñu bañ a décréter benn ñu liggéey ko. Mhm. liggéey ko mooy def préparation baax ñu bàyyi coach ak xelam. bàyyi ko choix am am confiance ci moom jàppale ko gunge ko man wuti ndam la yaa ko tudd. comme ça nit ñi ànd ak moom ci ndam parce que ndamam mooy ndamu Sénégal te bu gañee ñëpp kontaan. donc léegi man ko wuti yeneen ndam la <laughs> man man man ko wuti ndam boobu man man man man man je suis suspect man man man gëw ma trop. maa ngi koo wuti ndam bi c'est parce que dafa am am liggéey boo xam te ne yéen techniciens yeeg yooyu. Mhm. da ngeen da ngeen ko def. Euh, mhm. euh, tout à l'heure dina ñëwaat ci basket bi. Mhm. parce que quand on regarde Aliou. Euh, depuis 2012 presque moom ak osaturam. ñi ngi ñi ñi ñi ngi ñi ngi ensemble c'est-à-dire il travaille depuis 2012. mi ngi ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy circuit bi cette fois si dafa am ay rendez-vous à partir du mois de septembre octobre novembre balaa ñuy jëm ci coupe d' bi parce que fi ne nii moom li nga xamante ne moom mooy objectif bi à à court et un peu long pas même pas à long terme c' est la coupe d' Afrique surtout li nga xamante ne moom mooy naka lay def ba téye li nga xamante ne moom mooy moom mooy raaya bi mais ça passe d' abord par benn match amical face à l' Algérie euh, éliminatoire yi première journée bi euh, fin aussi éliminatoire wu euh, Coupe d' Afrique bi Euh, ci ci ci ci yan anam la ñu koy defee ak cette rencontre amicale là ban ban ban njëriñ lay amal équipe bi face à l' Algérie. xam nga li am solo ba Algérie tu sais Algérie c' est une des Algérie ñëpp xam nañu champ champion mm-hmm. donc euh, déjà boo xoolee am nañu benn entraîneur boo xam ne yàggul moo gagné woon raay bi te boo xoolee moo continué di liggéey ak équipe bi équipe bi y' a 2 3 ans moo nekkoon champion d' donc mun naa ne tey ngay joué équipe du guleet Sénégal mais tamit du amul lu ñuy jàng ci Algérie mais au moins sparring partenaire bu baax la mm-hmm. dinañ ci liggéey dinañ ci jëriñu parce que du adversaire buy taxaw wala ñu nga ñëw gagné ko facilement mm-hmm. day wane ko ni suñu booy aussi il faut ñu fëgg seen bopp fu ñu wane fulla continuer ci lañ nekk et puis wane ni aussi ñoom ñooy actuellement roi d'Afrique ñooy champion d'Afrique parce que loolu dafa war a nekk lu continuer ci match amicaux match gis ñuy muy taxawee équipe bi. donc yàgg nga nekk superviseur am. waaw du ci coupe du monde mais ay réunion ay réunion def ay réunion même avant match. ñu toog ni def ay réunion coupe d' Afrique bi ba finale ba la veille on s' est réunis ensemble en équipe pour partager waxtaan donc loolu yàgg na. moom pour moi je le connais très bien on s'appelle au téléphone daf may woo dama koy woo dañuy waxtaan. Mhm. jàmm la ñu ñoo bokk liggéey bi mais ku yaa ngi dem sa yoon mais war nañu mën a jàppalante. je pense que moom la fi yàlla teg et puis bon ñu ku la woo jox na la am na am na fu mu la teg. wooyee nga woo ngeen waxtaan et puis on échange nga indi sa xalaat man noonu personnellement loolu am nañ ko suñu diggante. d'accord mais coach gis nañu nga xamante

parce que xam nga mosoon nañu daal te amoon nañu équipe mag ñoom ñu fekk ñu ñu gàññe ñu te rappel Adebayor boobu moom moo doon saay-saay bi moo ñu defoon affaire bi donc comme moom wax na ko yëgal ñu loolu baax na nañ ci bàyyi xel contexte yi que benn benn waaw mais xam nga football parce que entre temps le Sénégal mooy li euh, ah. dafa gagné capital expérience boo xamante ne bu bu bu doy waar et am benn vécu benn benn jaar-jaar aussi. gis nga gis nga gis nga gis nga ça aussi il faut il faut le souligner tamit parce que équipe bi jógul rek nekk ni champion d'Afrique. gis nga li nga ni mooy li ma wax rek sànq bi may door ci personnalité parce que. ni équipe dafay wuyoo. dafa am un mhm. vécu am na liggéey bu fi ci taam. équipe bi ñëpp gis nañ ko. am na benn conscience nag boo xam ne moo touche du bois depuis quelques années mu ngi fi gis nga bu Sénégal du jouer da ngay sentir ni booy. am na leneen loo xam ne amuñu ko woon mooy vouloir bi envie bi détermination bi parce que équipe bi dañ daan reproché Aliou tout le temps côté jeu. parce que dañ doon wax ni moom équipe am li muy xeex moo ëpp mais tey jii équipe bi mu ngi xeex mu ngi football donc am na amélioration bu bari te au moins mu ngi osé sax di jël ñi nga xamante ni yaakaaruñu woon ni da leen di changé mu leen di génnee di jël ay xale di dugal di créer ay couple et puis yàlla di ci def jàmm muy dugal bii di gagné man je pense que comme ni mu ko waxee rek il faut faire confiance au mais man très rapidement damay dugalaale rek pour Coupe d'Afrique parce que fi mu ne nii ñi ngi wax Coupe du monde bi mais normalement l'objectif peut-être pour pour le sélectionneur c'est d'abord cette cette Coupe d'Afrique là et surtout conserver le le, le titre parce que loolu aussi sas la euh, mu suñu gañee coup d'Afrique cette fois-ci gagné nañ ko mais monter se maintenir aussi ce sera li nga xamante ne certainement moom mooy nekk cette fois-ci sacerdoce su sélectionneur bi avec ses joueurs maintenant ak ak ban groupe ak naka la ko naka la ko mun a mun a defee. Adja do kii li nga wax dama koy dëggal. Mhm. xam nga gagné benn trophée peut-être euh, mun naa ne yomb na yombul. waaye continuer di gagné moo jafe. Mhm. mooy nga dem ba ci kaw toog fa. et je pense que Sénégal ñaanatul yàlla dellu gannaaw. Mhm. li Sénégal di ñaan ci li ñu nekk nii mooy continuer di gagné. et je pense que lii début la rek comme ni ñu koy waxee dañu toog 65 ans 55 ans gagné wuñu yàlla def.

parce que le plus important li préparer coupe du monde bi mooy nga préparer coupe d'Afrique gagné ko. Mhm. motivation boobu booy bu ñu ko amee gagné une deuxième carte mais kooku c'est autre chose. et je pense que su boobaa ils seront intenables kenn du leen téye man daal li ma koy wax moom xam na li muy def te man su ma waxee man entraîneur laa. tu sais nit ku nekk yaay xool sa choix nga def. waaw mais man personnellement xam naa ko je le connais très bien. Mhm. et je sais que c'est un gars très sérieux et que xam naa ni moom boppam objectif am du sax pour le moment affaire coupe du monde mooy qualifié dem gagné ci waat CAN bi et je sais que loolu moo ne ci boppam. di ko ñaanal yàlla nag. yàlla suñu borom defal ko jàmm ak tawféex ba loolu am incha allah yàlla may ko ko incha allah mais coach y' a y' a un certain doute qui plane quelque part par rapport tey au choix de certains joueurs yi nga xam ñoom ñooy les cas de cette sélection là qui vont quelque part s'exiler alors que tey donc on part tey préparer une coupe d'Afrique des nations on part quelque part d'une peur d'avoir tey ce rythme là bi nga xam ne moom la ñu soxla quelque part donc quelque part quoi par rapport à ces joueurs là qui gars yi dañ koy posé par rapport ak rythme bi ñu war a mën a am sélectionneur nga xam nga tey comment se passe le football est-ce que tey ces jours là du ñu soxla une préparation spécifique par rapport tey au niveau bi nga xam ne mu ñuy xaar ak intensité bi. man li ma xam mooy sama U20 li ma ci war a def jour bu ma ko tànnee ak fu mu munti nekk bi ma ko jëli jël li mu soxla bu entraîné ak man ma xool li ko manqué ma yokkal ko ko kooku man maa ko moom foofu ma nekk mais moom foofu mu nekk. moom li ko manqué ak li jour bi manqué li mu soxla moom moo koy xool ci jour mu def ko am confiance ci moom ndax boobu ba léegi li ñuy xaar ci moom yàlla nga koy defal donc li war a ñëw yàllaa ko xam mais sincèrement parler jour yi nekk championnat Inde Indonésie Pakistan foofu si kooku moom loolu moom du ma ci wax li am solo ba am solo mm-hmm. mais Euh, Arabie Saoudite moo gagné champion du monde. mais mais coach lu tax doo ci wax. parce Arabie Saoudite Arabie Saoudite c'est vrai que dellu si waat na si. mais au début la avait dit que ñi ku génn ci. championnat euh, ay jamono football mi ngi dox ay jamono. waaw koy wax. parce que moom coach Aliou Cissé moo ko waxoon. mais loolu mais loolu yàgg na sax ci suñuy jamono suñuy jamono ñun bi ñuy football. waaw dooguma la de ñun si suñuy jamono bi ñuy football xam nga même équipe nationale joué naa fa. bien sûr donc ay jamono bi ñuy. football c'est un excellent joueur. waaw exactement xam nga ay jamono yooyu. boo demoon ci dëkku pays golfe yi tu n'es même pas considéré parce que jamono yooyu peut-être pays bi amul woon peut-être lii moom nii mais léegi seen championnat ils ach ils prennent les meilleurs coachs ñu ngi dem jëli joueurs yu baax yoo xam ne ñu ngi joué si meilleurs clubs yi au monde donc ça veut dire que seen championnat mi ngi attractif ñu ngi joué et puis quoi qu'on am donc man je pense que ni ku indi Cristiano Ronaldo dem indi Benzema dem jënd ay joueurs je pense que tamit football football boobu ko mënoo ko doole. li ci des nag compétitivité la ndax ñu vont jouer am wér-gu-yaram kon ne di compétir di jouer ay coupe Asie di jouer ay compétitions yu mag bon on sera après nag bu ñu ñëwee fii c'est que l'entraîneur voudra de lu muy xool si ñoom ak li mu war a yokk si ñoom lan la war renforcer si ñoom kooku seul entraîneur moo ko xam. moo ko xam d'accord alors par rapport au débat. damay ci dugal ci ci basket bi parce que démb bi ñuy waxtaan bokk na ci instabilité banc bi est-ce que quel que soit le résultat war nañu bàyyi Moustapha Gueye bu ñu demee Rwanda ba ñëw mu continuer liggéey bi parce que bi ñu waxee Bonaventure teg nañ ci yeneen ba ci Maguette Diop yéen Maguette Diop ngeen ngeen dajal ou bien Bonaventure. Bona Maguette Diop Maguette Diop. Bisnel Kona voilà ñu ñu ñu bàyyi mhm. mu am une stabilité ci banc bi mu mun a continuer liggéey li nga xamante ne bëgg nañ ko moom mooy dellu siwaat ci li nga xamante ne euh, moom mooy euh, ci toiwu Afrique et dama ci dugalaale rek aussi pourquoi pas ne pas responsabiliser aussi jamono yi les femmes gis nañ ko ci mel ni Lise Miles peut-être comparaison n'est pas raison mooy euh, l'Australienne là Euh, elle est là di coacher ay ay ay équipe est-ce que jotul ñu ci mel ni on a vu Khady c'est vrai ñi ngi ñi ngi ak coach ñi ngi jàng mais ay mborikaak yooyu est-ce que waruñu leen cette fois-ci nag gën leen dooleel gën leen may kàttan pourquoi pas ñu nekk à la tête d'une sélection nationale féminine pourquoi pas euh, lépp loo gis Adja confiance la parce que sélectionneur bi directeur technique moom mooy am confiance ci entraîneur bi jël d'accord voilà su ko jëloon tamit il a ses raisons moom moo xam ne te jëlu ko mais tamit pour le fait de responsabiliser les femmes loolu dama si ànd ak yow parce que dafa di loo xam ne que sax lu wax la ndax boo gisee actuellement si équipe euh, nationale yi fi xew comme au Mali le cas de entre les dirigeants ak joueurs yi. Mhm. problème yi fa amoon. Mhm. et dafa jaadu sax ñu jël équipe nationale léegi di ko jox jigéen ñi voyage bu amee. ñuy teg tamit si banc bi jigéen ñi da nga gis yenn équipe yi comme euh, euh, comment le Zaïre da ngay xool deux trois joueuses dañuy toog si banc bi parce que ay jigéen lañu jigéen jigéen moo ko mën a yor am na yoo xam ne que lu mu mën a di wax entre moromam jigéenam mënu ko di ko waxtaane ak moromam coach am na foo xam ne que tamit jigéen fu mu mën a egg tamit ak joueuse bi tamit coach bi tamit maanaam góor mënu fa egg ak moom donc il est temps que ñu responsabiliser femmes yi jël leen au niveau de l' équipe nationale di leen di teg si banc yi ñu accompagner équipe nationale. voilà est ce que jotul ngeen jël ay initiative. Euh, à dire pour vous affirmer un peu plus. mais même loo jël initiative jël initiative c' au DT de prendre les entraîneurs. est ce que vous <laughs> est ce que nangu nañu ñu proposer leen. qu' est ce qui mais fédération gis nañu fi problème yi fi am mais actuellement basket bi soo waxee sa xalaat sax ñu yaakaar nekk ñoom ñi fa nekk da nga leen bañ. sénégalais nanguwul mu nekk ci benn place yow nga ñëw ak euh, bokk ak moom même milieu am expérience bu mu am tamit nga ñëw di ci joxe sa xalaat xëy na li ci football bi nekkul ci basket bi. mais basket bi ñu mais vous êtes des personnes ressources. Euh, ne t'en fais ma chérie man loolu Nathalie Sané kenn du ko ko tere <laughs> loolu moom t'en fais pas mais dama lay jox benn exemple toog nañu ay temps ñu am na benn panel bu ñu ubbi bu ñuy wax sunu basket local affaire basket lañ fay wax ma dugg di joxe sama xalaat. am ñoo xam ne que dañu ànd ak président bi mais ñoom intérêt basket taxu leen jóg lu leen jóg rek mooy seen intérêt personnel. mais que xam nañ la sax est ce que xam nañ yow sa nañu mais xam nga nit boo xam ne ko maanaam bu amatulee ngox maanaam xaalis ak voyage jaxal ko lu nekk te ngox moom bu jëlee si nit rek dootul nit. mais bu ñu duggee ñun en tant que ancien basketteuse ou basketteur dugg si biir panel bi di joxe suñu xalaat gis yoo xam ne ay lacune la si fédération bi di ko wax mais dañ lay saa gis biir panel bi man dafa dugg ñu ne man a lay saa ñu wala am na yoo tamit li ñu la xamal dinañ ko wax man ne ko na baax nga ñàkk boo ko waxulee tey dinaa la wax li tàkk te du fay loo ma xamal rek man ko génneel rek lu doon ful la fayda am jom am personnalité digne mais leneen loo wax si natali saa ñu ko ko waxal leneen mais xoolal yu mel noonu yoo xam ne que dañ fi nekk uniquement pour maanaam tilimal deru doomu aadama yàq deram ndax la ñoom seen intérêt personnel du ñu ay basketteurs xamuñu basket xamuñu dara mais dañ fi nekk uniquement ci biir Basté bi pour seen intérêt personnel ay voyage dégg nga wala ñu nommé leen ay postes yoo xam ne que voilà des trucs comme ça et c'est vraiment dommage. loolu moo tax li nga xamante moo di trophée bi daw di Sénégal mooy manko bi nga xamante ne moo war moo war autour du basket loolu moo ci amul comme ni ko football bi amee manko wuti ndam dem jëli ndam li mais fii dafa mel ni manko di dàq trophée la ñuy la basket bi di wax. waaw mën nañ ko tuddee noonu tamit bu la neexee mais manko day fekk tamit booy manko manko ñi nga xam ne que tamit am nañu expérience si. maanaam basket bi. mais yow fi mu ne nii bu la mettre ñoom mettre Babacar Ndiaye mi kilifa gi parce que aussi il faut qu'on soit d'accord sur une chose le monde du basketball moom la ñu jox confiance jamono ji moom mooy doxal moom moo yore léegi yi d'ici quatre ans est-ce que bu leen oowee yéen tamit di ngeen ñëw collaborer ak moom liggéey ak ñoom parce que gis nañu aussi désormais ci comité directeur bi ñu copte ñu ci mel ne ay Kabir Pène ñooñu ce soo des personnes ressources c'est-à-dire ñooñu xam nañ basketball dellu si li nga xamante ne xam nañ ko ci basketball ñu ngi koy delluwaat ci ci ci basketball. bu fekkee de baal ma Adja li nga wax li nga wax ni démb il a confirmé maître Babacar Ndiaye mi def interview bi. nee na malgré moom la comme ni nga ko waxee moom la gaa jox lenge yi mais nee na tëjul ay buntam pare na pour waxtaan ak képp koo xamante ne basket basket Sénégal moo koy teel. bu fekkee ne copte la pour ñëw pour noot la bu ma kenn copte. mais est-ce que pour noot la aussi ndax man sama xalaat sama xalaat kenn mënu ko noot. mënu ma ñëw yow même bu fekkee ne yow la yàlla jox nga jiite lenge yi ñu nangul ko ko nag. mais tamit amoo si man maanaam xam-xam amoo si expérience mu am ñoo xam ne am na si mais bu ñu ñëw di wax ak yow déglu leen mais boo leen nanguwoon déglu mais est-ce que vous parce que aussi boo ñëwee tamit di wax ak koo xamante ne c'est le président. am na aussi noo xamante ne il faut il faut nga wax ak moom c'est vrai vous êtes les personnes ressources mais aussi moom moom lañ fi teg moom mooy moom moom mooy ko bañ moo fi teg club yi moom la am confiance ci moom jaakaarloo ñu ak moom xeex pour intérêt basket bi. yàlla may ko ndam ñu nangu ko félicité ko. si demain Maître Babacar kanjaay vous appelle vous êtes vous êtes prête à intégrer le comité directeur à travailler avec lui. déggoo lu ma la bu fekkee ne intégré pour bañ nga joxe sa xalaat noot la buñ ma intégré ndax ñu si bari ñu si biir même bu ñu gisee loo xam ne que lu ñu war a wax loo xam ne que jaadoo mais duñ ko wax. d'accord mais bari na bari na mais xoolee par exemple petite catégorie mais parce que amatu fii. la petite catégorie elle est laissée en rade complètement en rade. que nag mënoo maanaam bëgg a indi ndam. Mhm. si discipline bi te faale woo petite catégorie. parce que petite catégorie mooy relève. discipline bi mooy assurer le relève. voilà mooy assurer relève bi comme ni ngi ñëwaat léegi mais très rapidement parce que relève bi daf ñuy permettre ñu waxtaan léegi ak coach ci li nga xamante ne. moom mooy te euh, baal ma sax. c'est li nga wax léegi bu ñu wooyee mais man Tafa balaa muy nekk directeur technique. mais ñi ci yëpp parce gis ne ma ci plateau yi man maa doon ne Maguette Diop na bàyyi Tafa moo mérité place bi parce que il avait tout gagné il a été ancien joueur capitaine de l'équipe nationale gagné beaucoup de trophées avec les filles lenn rek moo ko desee muy direction technique bi te INSEPS la génne donc il mérite d'être directeur technique mm-hmm. mais ba ma fa doon wax tout le monde applaudissait mais maintenant bu ma toogee tey ba nga xam ne que tey gis naa leneen loo xam ne que xëy na li ma doon yaakaar si moom xaar ko si moom gisuma ko mais su ma joxee sama critique ñu saaga ma si wala ñama da nga bañ tafa léegi ba ma ko doon xeexal ko te gisoo ko parce que moom aussi bi mu fi nekkee léegi est que liggéey bi nga yaakaar yëpp war na ko mun a def avec les moyens limités qu'on parce que aussi euh, moyens yi amul tamit. ah li tax nga ne moyens amul le la. oui. Hmm. moom toog na fi wax ko. toog na fi wax ko.

ci ci ci ci ci longévité non pas seulement le championnat mais travail boo xamante ne aussi ci longévité sur plusieurs années loolu aussi ça ça ça ça pose problème te xëy na peut-être on aura le temps waxtaan si mais très rapidement parce que il faut ñu ñëw ak euh, coach aussi ci li nga xamante ne moom mooy sélection am mais Grégoire da nga def benn jàngat toujours ba léegi ci équipe nationale A par rapport ak parce que moment bi ñu ci mercato d'été bi bien sûr Adja euh, moom mooy la star de cette équipe nationale là mooy Sadio Mané qui donc des moments assez difficiles foofu nga xamante ne moom mooy le Bayern Munich Sadio Mané qui retrouve actuellement poussé vers la sortie waaye nag il n'est pas le seul parce que Bouna Sarr aussi il est même euh, moom dans le même cas figure ñu dem xool jàngat bi te ñëwaat. ba mu yegsee Bayern atum 2022 ak léegi mu mel ni Sadio Mané ay mbiram jafe-jafe kott la diggante gaañu gaañu ñàkk temps de jeu ak ay performance yu rek daal di xaw a sooxe doomi réewu Sénégal bi li nekkul ci lu yomb moom mi doon boot fukkeelu numéro Reds yu Liverpool daanaka mënees na rek xooli feneen coow laa ngi lëmbe ba tey mu toll ci fanweeri at ak benn donte sax jamono ji njortu amul benn yoon ne moom moome dese na bu ñu xaymaa rek juróom-ñeent fukk juróom-ñaari sélection ya mu am fanweer ak juróom-ñaari but mu dugal waaye rek diir bu ko dese ca Allemagne daanaka bëriwul bu ñu sukkandikoo rek ca la ñuy gis rek cëtuk yëglekaay yu bëri ba mu fa yegg seeg Sadio Mané atum ren ji daanaka fukki bi ak ñaar la dugale ci fanweer ak juróom-ñett ci ay jongante jamono ji nga xam ne rek ñu ngi doon xaar lu ëpp lu ni mel ci moom mu mel ni gàcc rek la ñu mujj am ci moom moo ne day doomi réew Sénégal bi sax bëgg na des beneenu pa at ngir fësal taxawaayam waaye jamono ji lañuy gis rek tukkee ci xibaar ca réew ko Allemagne moom mooy Sadio Mané bu ñu moytu rek ayu bés yu mujjam la nekk ni foofee ca biir Bavière ba waaye rek ci situation bi Sadio Mané bokk na ko tamit ak Bouna contraam des benn at waaye kenn bëggu ko fàtte yi ak ñaar fukk ak juróom ci ay marché ba mu fa yegg si atum 2020 ak léegi latéral bu doomu réewu Sénégal daanaka jàpp nañ sax ne amatul chance ci bile équipe moom mi nekkoon ca Marseille bu ñu koy xayma diggante benn million nga ak ñett la ñuy xayma njëgam. voilà muy jàngatu euh, Grégoire Samba Ngom euh, ci les Sénégalais qui évoluent au Bayern de Munich d'ailleurs war nañu tàmbali sax euh, seen tàggatu ndax moom Sadio Mané selon les dernières informations rejoint na club bi depuis vendredi dinañ si ñëw léegi ak coach par rapport à son avenir mais aussi samp nga laaj jëmale ci Talla Fall par rapport à un autre pensionnaire de l'équipe nationale Ismaïla sax waa moom Talla Fall mu jàpp ne jamono jaajaa bu ñu koy xayma rek li nga xamante moom mooy le staff de ISO moom moo nag war a def liggéey bi nga xamante moom moo war bu ko defee Ismaïla Sarr mën a ñëwaat tam au premier plan par rapport ak ce mercato la ñu déglu. Ismaïla ci boppam man yaakaar naa ne euh, li muy def euh, staffam moo ko war a gën a mën a jàppale. pour mën ko utal club bi nga moom la tollool. loolu nag staff bi moo koy liggéey parce boo xoolee tey. parce que joueur dafa mel ni bus day yéeg di wàcc boo xoolee match bi mu def contre Brésil mais staffam bu fekkee ne dem nañu nag liggéey ci dossier bi carrément war nañu mën a am ay proposition yu jëm ci kaaw Ismaïla Sarr et loolu yaakaar naa ne du doon loo xam ne lu jafe la parce que joueur la boo xam ne neex na présenté ismaila yaakaar naa ne sax bu dul woon dara ba waxante woon nañ ba juboo donc juboo boobu amoon na xëy na waa ji moo def benn sortie malencontreuse moo tax Ismaïla jotul dem Aston Villa mais en réalité c'était déjà bouclé maintenant Aston Villa weesu na toogaat na Watford léegi nag staffam ñoo war a liggéey pour génne ko foofu parce que joueur la boo xam ne Ismaïla il n'a que 24 ans donc quatre ans nag man ak niveau bi mu am ak qualité yu mu am vraiment war nañ ko mën a utal club boo xam ne bu ëpp euh, Watford Fall directeur de communication euh, de l'académie Génération Foot euh, Grégoire Samangom taataan nga aussi euh, kaddu Cheikh Omar Aydara moom manager la consultant fële ca FIFA moom mu dellu si ci le cas de Eliman Ndiaye ndax dina dem wala du dem fële ca Olympique de Marseille. ce qui pourrait faciliter à Dia ce transfert de leneen lu dul nag le choix du cœur moom Eliman Ndiaye qui est nag un fan de l'Olympique de Marseille depuis tout petit lu ni mel mënees na yombal bi transfert bu sukkandikoo ci Cheikh Omar. Vous savez, dans les négociations sur le plan des transferts, plus le joueur est attaché au club, plus les négociations sont faciles. Donc pour le cas Eliman Ndiaye, c'est naturellement ce qui s'est passé. Il a rêvé depuis tout petit de jouer à l'Olympique de Marseille. Je pense que ça c'est plus ou moins acté et c'est de bonne guerre. donc euh, gëm naa ni daal euh, am na solo mu mu dem fa nga xamante ne moo di Marseille parce que daf ko yàgg bëgg yàgg ko rêvé donc su fa demee su ma sañoon nag oui beaucoup de choses vous savez Marseille aussi c'est un c'est un très grand club et puis dafa nekk club boo xam ni c'est vrai que am na complexité sur le plan des supporters sur le plan de l'exigence du résultat mais c'est un club très respecté en France donc tey Ilimane su fa demee mais mën na fa def jàlloore parce que Ilimane mën na doon star Marseille man ci ni ma ko jàngatee parce que seetaan naa seen match yu bëri mais ci côté bu Ilimane du jeu ak résultat euh, bokk ci ñi nga xamante ne ñooy jiite vestiaire bi parce que en su ma sa su ma sañoon sax mu desaat fa mais su demee marché tamit c'est de voilà c'était la réaction de Cheikh Oumar Aïdara ma bàyyi la ak coach nga nga nga def ko benn <laughs> question <laughs> groupée bu ko defee ñu ñëw ci U20 yi. bon coach man li may wax moom mooy euh, pour euh, Sadio Mané tey un joueur boo xam ne tu es quelque part dans la liste de ces transferts là le club wax ni tey euh, da ko décevoir par rapport ak attentes yi nga xam ne amoon na ko ci yow. matale woo loolu noonu Sadio Mané quelque part il insiste pour prouver kay que mën na tey tenir cette barre la euh, kooku xam-xam ne c'est un de défi te bëggul dem quelque part tey ci li nga xam moom mooy euh, tey euh, un sentiment d'échec est-ce que Sadio Mané tey il a raison d'insister tey ci des ci Bayern Munich pour confirmer tey ce leadership là loolu benn la de deux le cas Ismaïla Sarr est-ce que tey avec euh, le niveau bi nga xam ne am na ko tey en sélection est-ce que Ismaïla Sarr tey doit toujours rester un joueur de Watford tey di évoluer tey ah, au second plan ci li nga xam mooy euh, en que xam nga Sadio kenn laam-laamewul niveau ak fi mu toll àdduna ñëpp ko bëgg mais dafa yàlla dafa def mu ñëw Liverpool mu ñëw kii. Euh, Bayern ci Bayern. yàlla def mu commencé début championnat bu baax muy dugal ay buts comme moom pour loolu lañ ko fa indee def matcham yàlla def mu gaañu ci diggante bi du dëkk bi mu gaañoo nag après comme ni ñu koy waxee yàlla li muy def bi mu ñëwaatee c'était pas évident et facile parce que toog na lu yàgg jéewul bi mu ñëwaatee aussi collectivement aussi on a vu que Bayern les gars ne l'utilisaient pas trop bali duñ ko passe bëri c'était un peu difficile de son côté et puis gis nga problème ak Leroy Leroy yoo xam ne am na fa yoo xam ne ñun peut-être yu ci bëri sax waxuñu mm. que ni moom làkkat la xam nga làkkat moom bañkat la mhm. c'est-à-dire que buggul mu demee nii wala mu terminer nii bu doon sagoom dina wan waa Berne lu mu mën moom bu fay jógee mu jógee fa avec une très bonne note waaye nag comme na ñoom moom seen club ñoom ñooy décider man je pense que la meilleure décision c'est <laughs> mooy ñëw Sadio Mané aussi comme ni ñu koy waxee bu demee ba toog gis ni vraiment il n'est pas à l'aise gis nañu aussi bu fa toogee du jouer ça va pas l'arranger mais il est obligé aussi de partir. waaw surtout ko bu toogee du jouer il est obligé de partir mais nag moom. xam naa ko ci la kon ah mais si l'entraîneur si ne veut pas de toi tu restes ça dire que. tu mais il la aussi. ça veut dire si l'entraîneur ne veut pas de toi tu restes. parce que même bu na rejoindre na la. waaw loolu loolu loolu mun na la indil gàllankoor. parce que ñun Sadio dañ ko soxla te xam nga saajo vraiment jour la boo xamante ni mooy li ma wax sànq di si ñëwaat jour la bu ñëpp soxla bu nekkee ci formam niveau ndax li mu wane contre Brésil waaw bokk na si jour yoo xam ne même même même Bayern tey bu ñu ko gardé waatoon bàyyi ko mu liggéey bu liggéeyaat rek ñoom ba jël encore kii ci équipe bi je pense que ni mun na leen apporter lu bari mais nag entraîneur bu nekk aussi ak ni ngay xalaate ni gisee ak aussi choix yi nga xam ne nga soxla moo tax. man dem ki nga Thomas Tuchel def na conférence de laaj nañ ko si euh, mooy la question. amul moo jëm si affaire bi amul tax hmm. <laughs> moom moo gën a xam Sadio Mané. Hmm. Hmm. parce que moom Chelsea la nekkoon. Sadio Mané nekk Liverpool gagné na ko du ah, a xam nga xam nga donc affaire choix moom. entraîneur mais est-ce que ne euh, mooy coow bi nga coow bi mu le roi jàpp na moo sooke li yëpp ba gars yi bëgg maanaam écarté ci ci ci groupe bi. waa xam nga li tax mu écart loolu benn côté waa Bayern mere nañ ko ci woon. Mhm. mais je pense que ni il s'est défendu par moment aussi. am na aussi yenn attaques yi bu bëree tamit. ci yow Sadio Mané ñëpp xam nañu ni ku tey la ku dal la. Mhm. te ku maîtriser boppam la. Mhm. moom waxam bëriwul boo ko xoolee sax communication waxam bëriwul. mais nag nit nit la quoi parfois mun nga exposé doo ko tey et parfois situation yi mun na présenté wu. mais après il s'est excusé comme ni ñu waxee mooy Sadio Mané ndaanaan la. ñëpp xam nañu ndaanaan ku li fi dund la am ko sa équipe aussi valeur ajoutée la plus la. pour man waaw tamit loolu wax dafa ne affaire bi euh, Sadio Euh, dafa am contrat ak équipe bi nga xamante ne moo di Bayern comme gars yi bokk nañ ko mhm. ne ci li nga xamante ne moom mooy sa sélection coach très rapidement mhm. parce que aussi il faut ñu ñëwaat ci championnat local bi ak sa expérience bi nga am en Afrique parce que génération foot désormais moom mooy représenté en Ligue de champion mm. le le Sénégal te gis nañ benn départ massif de ces de ces mm. mais balaay loolu dañuy ñëw très rapidement ci li nga xamante ne moom mooy sa ek euh, sa parcours mm-hmm. avec la sélection U20 mm-hmm. un parcours exceptionnel mm-hmm. euh, ci Coupe d'Afrique bi le Sénégal encore champion d'Afrique ngeen ñëw diggante nag bi ngeen di terminer bi nga xamante ne moom mooy tournoi bi ak bi ngeen di dem coupe du monde bi bëriwul torop torop mhm. torop mhm. alors on attendait mhm. beneen visage bu Sénégal mais malheureusement Sénégal qu'on sort au premier tour quest wala qu'est-ce qui n'a pas marché waaw d'accord moom ma ñëwaat ci sant yàlla ba pare Euh, wax nga lu am solo mais euh, liggéey bi mu ngi tàmbalee ci tournoi IFOA. Mm. liggéey bi. Mauritanie commencé Mauritanie. que ni bi ñu koy jël. dafa fekk équipe bi qualifié wu mu échec. ñu jël ko liggéey ko ak ay U17. mu am benn tournoi bu taxaw muy tournoi arabe tournoi arabe coupe d'arabe fële. Euh, Égypte ma jël U17 yi yóbbu leen. yoo xoolee quart de finale sax laa toog. ay xale yi ndaw laa yóbbu parce que damaa osé. ndax foofu xooluma gagné damaa xool xale yi ni ñu màggee. d'ici sama compétition yi di ñëw au moins ñu am lu ñu gagné tuuti ma dem dama demee ma toogee quart de finale je pense que match bi dama ko gagné ba joué contre Arabie Saoudite defe naa mu ne ko 1-0 mu égalisé mu dominé ko bi yëpp mu door mu tiro bi je pense bi ñu ñëwee après ñu préparé tournoi fois bi tëju di liggéey def benn présélection boo xam ne vraiment bu yaatu ci région yëpp mm-hmm. xam nga présélection dafa am ñaar dafa am présélection de détection ak présélection d'écrémage mooy détection mooy wari wuti tànn écrémage mooy bu ñu ba ci kër ga tànn dugal leen ñu xool leen mhm. après foofu tànneef bi foofu lay leeree bi ñu defee loolu nag ci la ñu dégaa ci groupe dem tournoi fois bi yàlla def ñu dem fa gagné ko gagné ko def naa dugal quinze bi encaissé 2 bi ba pare ñu raflé yépp ci loolu. avec a énorme Samba Diallo. avec un énorme Samba Diallo. moom moo nekkoon meilleur joueur tournoi bi. bi ñu fa jógee mu am ñaari joueurs yu dem. mais ñaari jours yi c'était le capitaine Ousmane Diaw bi dëkk Wakaam fii nekk Daaru Salaam mu nekkoon un pilier sax un défenseur pilier ci équipe wu entraîneur bi nga xam ne moo fa nekkoon mu Youssou nekkoon titulaire foofu moom mu dem euh, fu mu tudd ci euh, Portugal ànd ak Baye mooy jour bi nekk Sénégal ak central bi moom mu dem Bastia ci loolu ñu changé ko ak euh, Babacar Diouf Babacar Ndiaye bi nekk douane c'est que pour wax la équipe bi dafa tourné ci benn groupe à un moment donné groupe boobu moo joué tournoi UFOA bi moo joué coupe d'Afrique bi te groupe boobu après moo joué coupe du monde mais damay ñëw ci changement yi daal bi ñu defee loolu ba pare nag après ñu dem préparer coupe d'Afrique bi bi ñu pare préparer coupe d'Afrique bi on a fait neuf matchs amicaux ak club yi fii. Mm-hmm. mais avant ñuy dem Tunisie def nañu match amicaux ak Zambie fii. match amicaux ak Zambie bi mooy tàggoo bi nga xam ne moo ñu yóbbu Tunisie ci camp d'entraînement bi. Mm-hmm. ñu dem foofu amaat fa deux matchs. je pense que foofu la ñu jógee directement dem jouer coupe d'Afrique bi. ñu joué coupe d' bi comme ni ñu koy waxee avec le même groupe avec un élément près de changement ñu dem gagné ji ko mun naa ne continuité liggéey bi dem IFOA moo continué dem coupe d' Afrique ñu gagné ko je pense que ñëpp xam nañu statistique bi. Uh-huh. dugal 14 bi encaissé woo encaissé encaissé benn bi nga rafle yëpp ñu war a préparer war a préparer coupe du monde ñu dem ba mu des 20 jours la coupe du monde ñu yëg ni mun na am Lamine Camara du dem. mun naa am Papa Diallo du dem mun naa am Malick Mbaye du dem parce que Metz dañ leen di soxla parce que dañuy jouer FC Metz bi maa ngi dégg ñu naan Malick dafa waroon changer wala dafa waroon wut ñeneen ak ñeneen mais équipe kenn du ko tabax ci ay wuti nangam nangam équipe boobu ñu tabax muy noyau dur mu dem gagné coupe d'Afrique jàpp équipe yëpp gagné leen ba jël tournoi coupe d'Afrique équipe boobu dafa amoon am am base et puis Lamine Camara c'est pas n'importe quel joueur c'est un leader technique c'est un leadership c'est un joueur de qualité première et puis à lui seul il faisait la différence à un moment donné il avait une complicité entre lui Mohamed Lamine Camara et Pape Demba Diop le trio trio militaire donc ça veut dire que am na loo xam ne liggéey nañ ko ba pare ñuy préparer coupe du monde te xam nga nag am na élément yoo xamante ni bu ñu wàññee ko mun na bañ yàq équipe mais dina wàññi tuuti équipe ah lu tax nga rassuré parce que bi ñu lay jox trophée euh, bi ñu lay jox drapeau national waaw mais du wax loolu sama doo sama zone yi dina est-ce war nañu dégg may dem guerre may wax loo xamante ni di wàññi seen doole ñoom kilifa du defee noonu man jox leen confiance dooleel leen xamal leen ne li am am na mais nañ leen ñaanal ñoom fi ñu nekk yàlla may leen ndam mais ñun nañ dem wuti ji ko. mais loolu gëm-gëm boobu loolu mooy entraîneur parce que à un moment donné ce n'est plus le euh, l'entraîneur c'est pense que loolu laa def. te te ni ma ko defee yàlla xaw nañu ci defal sutura ndax match yi peut-être ñu ay buy mais ci contenu bi ni ñu footballee coupe du monde bi ñu ko sax coupe d'Afrique bi parce que match yëpp dañ ko dominé peut-être mun naa ne efficacité bi ñu amoon ci coupe d'Afrique bi moo ñu xaw a manqué moo tax moom Lamine Camara foofu la ñu manqué parce que sur tous les c'est lui te boo xoolee passe décisive yëpp moo ko doon joxe mun naa ne loolu tamit xaw na ci feeñ am un Papa Diallo boo xamante ne avec sa puissance avec sa vitesse mu daan percuter défense bi ci kaw mu manqué la ñu dem à deux jours de notre premier match contre le Japon ñu perte suñu meilleur gardien suñu gardien titulaire mooy Landing Diatta xam nga loolu rek ay signaux la moom mhm. même bu la yàlla wanul sax bu la wanee rek nga gis après dañuy nangu rek ñu xam ne dem nañu uti nañu parce que bëggoon nañu gagné et puis amoon nañu sax place pour gagner mais yàlla noonu la ko dogalee c'est ñëw naa nag ñu ne ma premier tour bii di nga toog nii ma ne leen bu ma doon tànn ñaar gagné coupe d'Afrique ak dem premier tour toog damay jël coupe d'Afrique parce que yàgg nañ dem ñu gagné dara mm. dañuy ñibbisi mais moo gën a difficile mm. te yàlla may ko amoon naa ambition ak bëgg mais nag ba port mm. ba jaraaf moo mësa ne gagné lay wax ah te yàlla ma koy defal xam nga depuis 2005 maa ngi gagné 2005 mm-hmm. laa commencé gagné tey 2023 foo ma gis maa ngi ci kaw. xam nga nag gagné neex na waaye toog ci kaw moo jafe. ndax wax naa la ko. tos man dama ñëwaat si mooy le cas euh, Samba Diallo yaa ngi koy sànq yaa ngi koy évoqué léegi. Mhm. Mhm. Mhm. bu nekk marqué na ko. mais ñuy coupe d' Afrique bi Samba Diallo bu ñu bu ñu ñu doon gis ñu dem ba si même coupe du monde même Samba Diallo ko lan nga jàpp ne moo moo moo moo tax retrouvé ñu. meilleur joueur bu Samba c'est parfois jour c'est parfois jour mun na am ay problème famille yoo xam ne dañ ko maîtriser football bi jóg kaw te ñun sax duñ ko xam parce que quand même Samba même aussi avec la guerre en Ukraine nga xamante ne am na ay affaires yu fa passé ñu yóbbu leen ay Pologne yooyu yoo passe yoo xam ne moom moo ko mën a expliquer mhm. peut-être yow mu ñëwee aussi ça temps de jeu mu nekkoon xaw na wàññeeku bu mu ñëwee mais on a essayé aussi de s'adapter liggéey ak moom pour permettre ko mu gaaw ñëwaat mais gis nañu ba léegi li ñu doon xaar ci moom aussi des na benn moment comme ni ñu koy waxee mais nit nit la c'est pas parce que a des problèmes rek Parce qu'à un moment donné, quand on n'avait personne, on avait Samba Diallo, qui nous a gagné le trophée de tournoi de l'IFOA qui a été élu meilleur joueur, comme nous avons Et que moi, je suis l'équipe et je suis Yobo. Et nous savons que Samba Diallo, au meilleur de sa forme, c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Donc, après, comme nous avons euh, soo ko xoolee sax Dinamo Kiev jamono ci ñu ngi ci équipe A bi match amicaux yi mooy dugal uh-huh. bi mu ngi dugal préparé nañ ko ñëw na am na yoo xam ne yu bëri am na ci yàlla def na doxul bon nañ koy sant yàlla. xale la pour man aussi ça arrive ça arrive na liggéeyaat rek mu ngi koy def maa koy woo di ko conseiller comme toujours son père. Mm-hmm. di ko conseiller di ko yokk aussi te gis naa ni sàppe yi mu ngi am njëriñ di ko ñaanal yàlla yàlla gën a defal tawféex incha allah ndax ëllëg Sénégal soxla na ko. Mm-hmm. ci footballu sénégalais pour mu ñëwaat le plus rapidement possible incha allah. Mm-hmm. ñëwal donc je bi cassure amee par rapport ak euh, sa joueurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon au top temps bi gàtt. Mhm. préparation bi sooxe. Mhm. nga dem aussi nga bokk ci groupe boo xamante ne xëy na nit ñi turu équipe bi moom lañ jàpp ne. Mhm. Euh, le Sénégal dafa war a ñëw dox seen kaw. confirmer tey son statut par rapport ak euh, leadership bi nga amoon ci au niveau africain. mais sur le terrain on a aussi une opposition de taille boo xamante ne ni à chaque fois que équipe adverse bi amoon des attaques. quelque part on avait des frissons par rapport tey aux jeux proposés. Mhm. léegi tey bi ngay préparer sa équipe en ce temps là. yow mhm. Malick Daaf lan moo nekkoon tey sa biir bopp tey bi cassure boobu noonu amee mu leer na tey benn tànk bi lay demee nga ñëw retrouver waat tey un Samba boo xamante bu nekkoon tey à 100 pour cent 40 pour cent la indi dans la sélection. waaw non mais xam nga bi may dem aussi ak équipe bi ma préparé je pense que profil joueur yi dañuy ko am. donc j'ai obligé de s'adapter avec Djibril Diarra nga xam ne yor naa ko ci mm-hmm. cadre yéegal ko ba tey yàlla def mu toll fu mu toll donc euh, loolu c'est normal parce que ñi joueurs aussi yi nga am entraîneur du moom mooy créer système wala moo koy dafay xool aussi en fonction de li mu yor ak moom naka la war a créer système je pense que ni moom Mouhamed Lamine Camara benn bi nekk Berkane je pense que mu jouer mu nekk nekk face au jeu moom mu jouer devant la défense il est plus à l'aise quand lui il joue devant la défense boo ko avancé numéro 8 et moom loolu moo doon force moom ak Lamine Camara parce que Lamine Camara da doon complément ak Lamine Camara bu ñu doon joué milieu terrain moo tax seen complicité même parfois bal bi su ko yoree mu lekk ay mètres kii xam na ni automatiquement da koy remplacer ñoom ñaar et puis y avait une complicité énorme mais Djibril Diarra c'est un joueur boo xam ne beneen profil la morphologie am mhm. agressivité am taayam bon c'est beaucoup plus dans le combat dans l'agressivité dans loolu donc moom boo ko avancé numéro 8 ak lenteur am peut-être li ngay xaar ci moom ak rapidité vivacité daa am lu des mais c'est un jour exceptionnel c'est un très bon jour mm. quand il ballon mais je pense que aussi ay jour bu ñu demee def couple ba miinante yàgg joué di bokk ay match am déggoo nga koy xëy dindi kenn peut-être keneen mun na ñëw ñu ànd dem mais peut-être du gaaw yomb rek ñu ñëw rek bokk demandoo donc day normal mais loolu yëpp dañ koy dañ koy liggéey di ko liggéey moo tax à un moment donné am na benn moment da koy sentir ni euh, euh, nu mu tuddee Djibril Diarra dañ koy day jéem a avancer tuuti pour créer le jeu pour def le jeu mm-hmm. moom mu taxaw mais ba léegi ce n'est pas mm-hmm. le même profil de joueur yi ñu am. complexité complicité bi. dafa voilà dafa des ko voilà. coach on peut dire que da nga amoon un bon 11. Mm-hmm. type. mais sa profondeur au dafa mel ni moom moo la moom moom moo la xaw a sonal tuuti contrairement ak Serigne Saliou. Sëriñ Saliou dañu gis ne moom. Mhm. mais mais loolu ci Coupe d'Afrique bi mais comparaison n'est pas raison là c'est la Coupe du Monde lii Coupe d'Afrique la. Mhm. Euh, mais tout le temps la solution vient du banc. Mhm. mais yow dafa mel ni problème boobu nga amoon amoon nga un bon onze type. mais sa profondeur u banc moo posé woon problème. waaw léegi dinañ ñëw foofu parce que c'est li nga wax ni c'est très important ñu waxtaan ci parce que je pense que bi ñu joué Coupe d'Afrique contre euh, Nigéria ñu gagné contre. Euh, euh contre Mozambique ñu gagné contre Égypte 4-0 yi banc bi moo ko gagné. 4-0 le score le plus lourd banc bee ko gagné. Ibou Sané dafa dugg dugal. waay am na. Euh, Djibril Diarra moo remplacé moo Lamine Camara bu ñuy joué avant contre Bénin contre Mozambique bi mu gaañoo. ci tàngoor ci bi donc banc bi baaxoon na. banc bi amoon na solo. Euh, Mamor contre Égypte moo joué titulaire devant Samba Diallo qui est resté sur le banc durant tout le match. Mamor a été dynamisé il a dynamisé la défense de de de de de l'Égypte il a été omniprésent et c'est l'homme du match. et si banc bi la nekk. et toujours même Mamadou Ngingue chaque fois qu'il rentre dans le match tu sens que c'est un gosse talentueux qui a bi am na solo banc bi am na solo sa à dire que nag coupe du monde amuñu choix bu bëri vingt jours la ñu am vingt jours yi ñu am mooy li ma la expliqué ñu dem. Samba bokk na ci yaakaar gi ñu gën a am te Samba jour la boo x ne kenn du ko laam-laamee bu nekkee ci niveau moom c'est un plus valeur ajoutée la da mun na yóbbaale ñu bari. mais peut-être aussi comme ni ñu koy waxee. lan moo biaisé dans ce cas sa préparation. Hmm? mais moo biaisé sa préparation xam nga xam nga préparation bi. euphorie coupe d'Afrique bi la. ngeen nekk ci seen nuage ba fàtte ne cette fois si li gën a metti c'est-à-dire vous avez parcouru parcourir ngeen chemin bi ba ba mi-parcours. Mhm. mais li des moo ëppoon. xam nga yoo xam est que yow xam ci ay xeebal ak préparer ak koo xam ne bu gagné sax du la réew. mais yéen ñi c' est que équipe par rapport à sa préparation moo tax la expliqué ñun bi ñuy dem préparer on a on a programmé deux matchs à jouer mais par rapport aux demandes de visa on a eu des problèmes avec l'Argentine on a eu retard trois jours ce qui nous a valu même on est venu le jour du match pour jouer même ce jour contre euh, le contre euh, les états ci jour bu ñu agsi deux heures du matin trois heures du matin on a joué à quinze heures. lu tax demu leen avant. waaw moom laa lay expliqué c' est un problème de visa ak ambassade argentine parce nekkul fi. on a eu beaucoup de problèmes avec les te ñun waa dafa ñëw ba fii ndekete da ngay def vis demande visa ñu yóbbu ko ba Argentine indiwaat ko ça nous a perdu ça nous a perdu. mais loolu xamu ko woon avant. def nañ ko ah xamoon nañ ko avant man bon def nañ ko ñëw nañu. donc c'est la fédé qui est responsable. ci non fédé non non non ci ci loolu. non non non non c'est la fédération ñoom la ñoom la ñoom ñoom la coach. ñoom la c'est-à-dire le pourquoi. c'est vrai c'est bien centre bi ngeen bi ngeen nekk nii mais pourquoi ou bien yow la ce choix la woon pourquoi teelu leen dem ou bien ngeen xaw a approché wu sax un peu. Argentine parce que c'est vrai. dañu waroon a def non parce que amoon nañu problème ak sunu joueurs yi nga xamante ni ñu ngi woon ci kaw. pour ñu ñëw pour ñu dem c'est-à-dire que aussi c'était pas évident parce que du période FIFA. mais règlement boobu xamu leen ko woon coach. règlement boobu yow da ko ignoré woon wala xamoon nga ko. que boo moytuwul sa sa sa joueur yi évolué fële FC Metz ak yooyu. ba moytu kenn du leen libéré parce que. non loolu on l'a su du fenêtre FIFA euh, FIFA. Euh, mais am na ñu am parce que parce que parce que loolu on l'a su après parce que ñun bon lu ñu xamoon ci jour yi dañuy ñëw mais à un moment donné bu ñu amee ñaari xel ni jour yi ñëw ci la ñu commencé changer xalaat. soog a plan B plan B quoi après. mais euh, est-ce que nekkul ne comme même critique bi nga xamante moom la gars yi di di wax est-ce que nekkul moo leen arrivé. Mhm. damañ sax ba même mooy mooy di doole marqué ay buts.

ak jàng dugal bi je pense que ñu ngi koy jàngal. alors mais chaque jour n'est pas dimanche mais attends attends. le football le football. on a raté beaucoup d'occasions. waaw mais mais mais mais mais mais mais yow tey euh, tey boo suba tey yaa ngi dimanche boo yow suba lundi la <laughs> jour du ñu benn. alors on termine tey nga ñëw tey nga ñëw tey nga nekk si forme ku la xool xam ne forme santé comme ni nga santé ni suba nga ñëw nga lewet wala dal fekk àdduna moo demee noonu tey da ngay ñëw mu dox suba nga ñëw du dox Sadio Mané kii nga am laa amee ni ndaanaan la ku li fidrine la Sénégal lu mu musul am moo leen ko indil mais tey mi ngi am jafe-jafe ci club am te pourtant Liverpool toj na ko jël na fa lu ne àdduna moo demee noonu. ñoo am ñoo am blessure alors très rapidement la dernière question ñu dugg ci champion bi <laughs> coach Colombie euh, yéen vous aviez votre destin en main même si. ñu ngi doon jiixi jaaxa. Mhm. ngeen dugal but. Mhm. donc foofu moom déjà entrevoir ngeen li nga xamante ne moom mooy deuxième tour bi alors une vidéo est devenue virale ci vestiaire yi. Mhm. ngay ngay ngay yuuxu boy remonté waat leen diggante deuxième période bi ba seen élimination qu'est-ce qui s'est passé. non vidéo vidéo bu may wax booy Coupe d'Afrique waaw Coupe d'Afrique la. je de la Coupe d'Afrique de la de la Coupe d'Afrique. Ah, mais c'est sûr que à la mi-temps vous avez parlé à vos joueurs. waaw nga mënee parler à vos joueurs. amul mm-hmm. parce que dañu préparer match bi ñu entamé ko comme ni ma ko bëggee man ñu am match bi téye ko maîtriser ko la preuve ci lañ dugal suñu but. seen but mais bu ñu ko dugalee après dañu reculer ñu bàyyi adversaire bi mu ñëw suñu kaw acculé ñu sonal ñu te ñoom dañu am ay grande taille. c'était voulu ou pas. déedéet c'était après c'est pourquoi à la mi-temps. j'ai crié un peu. parce que am na lu tax man ma wax ko parce que man ni ma préparé équipe bi noonu laa bëgg a jouer. d'accord léegi nag après en deuxième mi bi ñu ko defee waa ji ci excès tul yi. te dugal nañ ko bii bu ñu gañaloo ñu gañe ko mu jeex. parce que li ma ci bëggoon am naa ko parce que defal nañ ma ko après. non face à la Colombie laa wax. non maintenant pourquoi deuxième période bi loolu am. mais contre Colombie wax na ko contre Colombie wax nga ko wax nga ko kii wax na ko. am nañu sax ay bal de break dafa bari. Mm-hmm. bal bi ñuy dóor ci poto bi. Mm-hmm. ak bal bi sàmm di rëcc ci rond central bi. bëri na occasion. Mm-hmm. trop trop bii bi ñuy jël. c'est c'est but la d'un but gamin la bal bi amul benn danger. dañu dóor waa ji dégagé ko ba dem ci côté gi waa ji téye di centré góol bi entre ligne am ak espace boobu mu génn rek lay jur jël ko ça y a station et c'est ça le football aussi mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. station la moom yu parce que fi ñu passe bi moom dafa waroon génn pour pour pour réduire woon day génn jël ko mais comme génnul dafa bi waa ji di contrôler lay door a génn cest à bi mu waree génn génnul bi mu war lay génn la génn ay détails la. qu'est-ce que vous avez senti surtout que b Israël dem ba quart de finale xam naa vous vous êtes si si xam nga man xam nga équipe Israël bi équipe Israël bi man respecté naa ko parce que man xamoon naa ne ñoom ñoo joué final ak Italie Italie gagné ko 3 ñoo joué Israël boobu noonu man man xam man man malgré que man dominé naa ko parce que match bu gënoon yomb sama match yi boobu la mais xeebu ma ko parce que xam naa ne jour boobu booy yi j'étais là ils ont bien maîtrisé le match dominé créé ay occasion dugaluñ ko mais xawoon naa tiit aussi mhm. parce que match boobu da nga koy gagné amaat chance ci mais comme ni ñuy wax ay xale nga yor ay xale moom da ngay parfois nga jubanti rek dañuy def lu baax ba nga yaakaar ni lépp baax na après ñu mais xale bokkul ak mag mag may ah. am maturité nga wax ko dara mu nekk ci du wàccaat mais xale bi ngay jàngal parfois nga dégg ko teg ko ci yoon ba nga foog ne mu ngi ci yoon mu jékki-jékki wàccaat mais coach yaa ngi yaa ngi yaa ngi xool yaa ngi yaa ngi ñu ngi jëm si euh,

mais presque ossature bu demoon Coupe d'Afrique y a plus personne booy yi dem nañu booy yi demoon GF 22 jours la dem nañu jàmbaar 17 jours dem nañu Gorée seen benn jour dem na seen ñaari ils sont en partance cette semaine donc y plus de si ce groupe là. non c'est ah, ah, eh, normal donc football moo demee noonu amul objectif bi ñu la assigné quoi kon. ban jotu la ñuy assigné lu préparé wu la mu entraînement lu ñuy assigné ñoom. <laughs> ah, ah duñu junne nag duñu wàll. Ah wàllu kay mooy lay préparé ñëw dem compétition liggéeyoo ko. li nga wax leer na bu ah, bu yi nekk fii sax di am ay pression alors Grégoire très rapidement balaa ñuy balaa ñuy tëj on parle de la préparation aussi des euh, des Lions. Euh, mm -hmm. elles ont joué en amical euh, face à l'Algérie vendredi dernier marqué par une victoire des Lions 3 buts à 1. waaw muy nag ndam li nga xam kaw réewu Algérie 3 ñu ngi ko doon amalee foofee nga xamante rek moom mooy le stade Lat Dior de Thiès une rencontre amicale boo xam ne dugg na nag ci wàllu préparation Sénégal nag bi ñu amee fanweeri simili ci la rek njëkkal ak caax yi jaar ci ki nga xamante ne ah, moom mooy Mbayang Sow ci loolee ci wàllu coup franc la woon nag yi ñoom indi nañ réplique ak sénégalisation la 56e minute de jeu ah, muy nag un boo xam ne tamit ci defar marine la daal di woon a tukkee bi ñu ci jógee ah, ñu yaakaar rek ne match nul nag lañ doon dem waaye ni ñu faral rek di ko gisee dans cette sélection là am nañu nag Ngenaat Ndiaye mi nga xamante ne moom chaque fois rek bu réew Sénégal nekkee ci jafe-jafe dafay génne le grand jeu à la 87e minute la daal di woon rek euh, dugal nag li nga xam moom mooy ce but là nag ñu gis ci a la fin de rencontre la Sénégal daal di am li nga xamante rek moom mooy euh, le dernier but bi nga xam ne euh, moom moo consacré nag cette victoire du Sénégal ci ki nga xam ne moom mooy l'Algérie 3 buts à ci premier match bi nga xam moom mooy cette rencontre amicale là. samedi incha allah les deux euh, les deux équipes vont se retrouver euh, donc mu nekk peut-être phase aller cette fois-ci phase retour on vous rappelle que les Lions se préparent pour les éliminatoires de la CAN 2024 dañu war a delluwaat fële nga xamante ne moom mooy ci Maroc mais d'abord ça passe par les phases qualificatives donc Mozambique la ñu war a dajeel au mois de septembre et puis dinañ ci brosse waale sax euh, ñi ñu libéré mooy le staff là de Dakar Sacré-Cœur wax nañ Euh, les responsables de Dakar Sacré-Cœur aussi ont pris leur euh, décision mais on espère que aussi dina am ñu ci jéem wax euh, ngir peut-être ñu permettre leen ñu intégré waat leen parce que Dakar Sacré-Cœur mi ngi jëm ci Coupe du Sénégal war aussi représenter Sénégal en en, en Afrique ñu remercier ñaari membre ci seen staff technique coach principal bi di ay Aïssatou moom a pris la décision Euh, soutenir ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyal moom aussi mu déposer démission am euh, pour ay waxu euh, mystique loolu aussi doy na waar dañ dañ koy brosser waale rek après peut-être coach dina ci ñëw ci statut technicien yi fii ci Sénégal ak jàmbar ak génération foot hier mi gagné euh, jàmbaar mu permettre ko cette fois-ci mu décrocher titre saison 2022 2023. ce qui vient déjà tey li nga xam mooy euh, la forme de génération pour tout cela c'est avec seen dernier sacre bi nga xam ne amoon nañu ko ci atum 2019 équipe bii di génération foot jëlaat na championnat bi ñoom nag luñ doon dajeek équipe bi di jàmbaar lañ ko daal di dóor benn bal ci dara boobu nag match nekkoon match bu am solo ci kanamu amateur football yi ak public bu bari ñëwoon doon seetaan ci bile match bu ñu demee nag ba ci deuxième mi bi ci soixantième minute bi ci la ki nga xamante ni moom mooy Ibou Sané daal di def benn faute ki nga xam ne nag moom mooy Barthélemy Diouf daal di dugal but bi nga xamante ni moom la génération foot am ci bile match mu nekk nag palmarès bu am solo. un bon travail. travail de liggéey bi liggéey bu yàgg la liggéey boo xamante ni tàmbali neen ko euh, depuis daaw ndax boo xoolee euh, ci weeru août bi presque fin août lañu ñu commencé woon euh, li nga xam ne mooy préparation yi tey nag gis nga ni liggéey boobu noonu wane na njëriñ li nga xam ne moo taxoon ñu ko doon def waaye lu gën a wax nag ne joor yi nga xam ne tey ñoom ñoo bokk fii ci académie génération foot liggéey rek lañu xam waaye tamit mérité nañu lii ndaxte kat ñoom dañu doon def seen kéemtalaay kattan ngir mën a jël championnat bi tey nag loolu la ñu indi fii tey moom la ñu wane mu nekk nag jaloore boo xamante ni wax dëgg yàlla daa ngi ciy gërëm euh, yi waaye tamit di ci gërëm ñëpp ñoo xamante ni staff bi ñu jàpp ci euh, match yi nga xamante ni moom lañu amoon lii mooy génération foot. et waa jàmbaar nag ñoom ñu gis ne ni dañoo taxawoon ngir mën a daal di dóor équipe bi di génération foot waaye loolu antuwul seen coach bi nag nee na naam sax am na déception waaye teewul dineen xoolaat bu bari rëq-rëq yi nga xamante ni am na ci bile match waaye tamit ngir mën a préparer waat bile saison. quelque part la marche était vraiment très très haute aujourd'hui on, avait quand même beaucoup trop de joueurs. Euh, naam sax am nañu lu euh, ñu amuñu lu ñu bëggoon waaye tamit euh, déception man nag euh, dina xaw a am lu mu métti waaye teewul tey jii gis nañ équipe bu génération foot gën ñoo ëpp doole ndax ñu ñoo ko gagné woon ci àll bi ñu ñëw fii tamit ñu gagné ñu naam sax bëggoon nañoo am benn nul waaye mujj woon a antu ñu ngi leen di félicité bu baax a baax ñoom waa génération foot waaye man tamit ginnaaw loolu dina jaajëfal sama joueur yi ndaxte def nañ seen kéemtalaay laay kàttan ngir gagné woon match bi waaye antuwul xanaa di leen félicité ngir mën a préparé waat beneen match yi nga xamante saison yi ñu gis ne nag championnat sénégalais bi nga xamante ni entamé woon nañu génération foot moom nag bi mu nekkee deuxième partie ci euh, victoire yi nga xamante ni amoon na ko ci bile euh, championnat ñoom nag waa génération foot tey bokk leen ci ñi nga xamante ni yëkkatiwaat nañu championnat sénégalais bu Ligue 1 ñu gis ne nag deux mille 2017 ak deux 2019 waaye yokkaat nañ ci mille 2023 bi nga xamante ni mu nekk bile at bi di clubu Madi Touré bi nekk championnat ci bile saison foot euh, sacré championne de cette saison 2022 2023 loolu day andi sax li nga xamante ne moom mooy restu euh, tey journée bi balaa ñu koy ndax képp suba lundi cette vingt quatrième journée Grégoire Samba Ngom waaw Dia bu ñuy xayma rek jamono ji nag cette Ligue 1 sénégalaise ñoom fësal nañ bu baax a baax rek li nga xamante nag moom mooy le tableau résultat complet parce que euh, ginnaaw nag ndam li nga xamante ne rek ñi nga xam moom génération foot jot nañu ko am jàppal ne entre te ngay jëf see ak jaraaf ndam demul ndam dëkkul kenn dugal tamit Casa Sport ak digganteem euh, ñii di Stade de Mbour noonu la demee Corée ak Guédiawaye itam ku ne benn bal nga am Sonacos bett AS Pikine naka ko ñaari bal ci euh, dara Linguère Traoré tey nag dañuy dem Kaay Nice Adja parce que ñaari bal ci dara rek la am ci kaw donc ñoom ñu def nag seen fin de saison bu am am solo ci li nga xam mooy la. et au niveau du la tête de l'eau tuuti. tuuti de Saint-Louis nag le stade de Mbour tam ak cette victoire ñii di waa AS ñoom ñëpp ñoom dañuy retrouver nag avec le même nombre de points bu ñu koy euh, xayma ci li nga xamante ne ni euh, moom mooy euh, cette course à la descente donc tey Snap Excellence de Thiès moom ay mbiram kenn waxatu ko donc la course fi ci des rek moom mooy diggante Guédiawaye FC Teungueth FC ak ak nga xam ne ñoom ñooy waa Gorée ñoom ñëpp des nag jamono ji rek di dàqante li nga xamante ne tey moom mooy lii ci wàllu fin bi ak lépp loo xam ne moom mooy le nombre total de points bi ñu mën a engranger. alors qui vingt cinquième journée wala vingt sixième journée on vous rappelle que vingt cinquième journée bi incha allah génération foot dinañu célébrer li nga xamante ne moom mooy sacre bi en attendant on espère que Linguère euh, ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy AS Douanes ak peut-être le de Mbour xëy na kenn ci ñoom ñooy accompagner euh, waa SNEPS Excellence euh, Ligue 2 ci Ligue 2 bi sax. désormais xam nañ ñi ñu sacré ndax tey la woon vingt-sixième et dernière journée bi Diamano euh, de Fatick est sacrée championne. US euh, Wakam retrouve euh, l'élite depuis 2017 dañu amoon ay jafe-jafe on se rappelle déjà anniversaire bi ah démb la woon juillet malheureusement mu am ay doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan ay supporters au stade de Mbour cette fois-ci ISO on espère qu'ils ont retenu la leçon cette fois-ci retrouvé nañ élite bi waaw Adja c'est une euh, bonne nouvelle nag pour ñi nga xamante tey ñoom ñooy waa Wakaam parce que aussi euh, mbir la moo xamante ne woon na tey tout Wakaam tey dans le désarroi parce que aussi am équipe boo xamante ne c'était une équipe assez euh, faite ci li nga xam mooy cette Ligue 1 là daal di li nga xamante ne moom moo leen gënoon a retardé ci wàllu ko football donc dire cela nag ça revient tey à revenir sur ces résultats de cette Ligue 2 sénégalaise mi nga xamante ne tey bu ñu koy xayma Amitié FC aussi dafa daal di am ndam ci kaw HLM Ndiambour dafa nërmeelu ci kanamu Oslo Port tamit naka noonu ci kanamu jamono bu Fatick AJEL bu Rewesque nag malheureusement ak seen po succès ñoom duñu mujjee rek yegg si ci li nga xamante ne ni ah, moom mooy cette Ligue 1 donte nag làpp nañ jës juróomi bal ci ah, benn Kër Madior dafa am ndam ci kaw démbajo Diop uso donc ah, ci kaw Walidane Mbour Petite Côte moom dafa daal di lajj itam ci kanam ñi nga xamante ne ni Euh, moom mooy seen euh, match tey jii ni ko mën a gisee rek donc euh, Wakaam retrouve tey li nga xamante ne ni moom mooy l'élite sénégalaise. moom ak jamono de Fatick alors félicitations au président mam Adama Ndour félicitations aussi à l'US Wakaam avec à la tête Moustapha Seck technicien euh, certainement peut-être semaine prochaine on reviendra. ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi leen permettre ba ñu cette fois ci mën a retrouver waat li lit euh, mais coach peut-être dañ koy boole ak kàddu gu mujj gi waxtu wi xooj nañu xabaabal nañ sax ñu ngi jéggalu euh, génération foot mi war a dem Ligue africaine des champions euh, ossature bi yëpp dem nañ mu war a représenter dignement le Sénégal et désormais l'objectif c'est clair c'est faire mieux que yéen jaraaf bi nga fa nekkee c'est faire mieux que peut-être Teungueth FC naka lañ ko mën a defee ak euh, li nga xamante ne moom mooy sànq wax nga ko presque plus de vingt joueurs qui sont partis. waaw Adja d' abord maa ngi profité di féliciter Génération Foot. oui di titre champion mm-hmm. nekkal ñi mu àndal ñëpp. di profité aussi di féliciter waale aussi euh, Wakam ci titre champion bi nga xam ne jënd ko ak monté bi muy ñaari yi nga xam def na ko ak. Euh, kii mu président Adama Ndour ak euh, jamono jamono Fatick waaw li di wax ni aussi euh, li nga wax am na solo football moo demee noonu football moo demee noonu ñun dañu nga xam ne xale yi Sénégal la ñu nekk Sénégal la ñuy dund et parfois aussi y a problème des ak yëpp yoo xam ne ñoo ci nekk waaw loolu moo tax parfois pour nga téye jour day xaw a jafe euh, bon centre yi nag peut-être mun na wute ak club traditionnel yi parce que centre yi toujours day am toujours vivier mooy de am ñuy préparé ci gànnaaw équipe yoo xamante ni bu ñu jëw boo ñii wala ñii bu ñu demee ñeneen dañuy ñëw parce que loolu moo tax ñu wax centre. mais dem nga Afrique xam nga lu ñuy wax bu baax que ni boo xoolee am nañu benn équipe élite boo xam ne jamono yi passé demoon na di jouer ay tournois suisse ak yooyu xaw ma nag yéen a ngi ciy bàyyi xel. waaw donc ñoom ñu ngi doon préparé donc lii lii seen projet ñoom xalaatoon nañ ko. parce que moo tax ñu ngi doon préparé toujours une relève derrière et puis comme ni ko waxee mais ci xale yu bëri yoo xamante ne ay U17 yoo xam ne U20 ñu doon joué ci championnat peut ñoom dañu am benn vivier de joueurs yoo xam ne parfois ñu dugal ñii génne ñii mais comme ni ñu koy wax euh, Coupe d'Afrique yombul. waaye je pense que ñoom xam nañu leen xaar parce que je pense que ambition Madi ci waxam toujours su ma koy dégg mooy dafa bëgg dugg phase de poule def lu kenn sul def mooy kéem a gagné Coupe d'Afrique bon je pense que aussi dina pour xool aussi nu muy demee Coupe d'Afrique pour honorer Sénégal honorer boppam parce que je pense que loolu moo fi nekk. peut-être dem chercher yeneen joueurs. andi leen waaw loolu mun na nekk mun na nekk parce que commencé nañ ñoom di ko def ñoom commencé nañ sax soo xoolee def ay tests di xool ñoom di ngi liggéey déjà ci anticiper ci année prochaine donc ñoom tooguñu quoi. Mm-hmm. te malgré gagné nañ titre champion bi ma xoolee toute la semaine passée ñoom ils étaient en train de faire des tests. ça veut dire que ñoom ñu ngi anticiper déjà ci l'année prochaine et ça c'est important quoi. xanaa di ko ñaanal yàlla ak di ñaanal aussi yàlla rek fi mu jëm yàlla yombalal ko yoon bi parce que mootul moom ak génération foot mais affaire Sénégal la donc il représente tout le Sénégal donc je pense que di ko ñaanal yàlla rek yàlla yombalal ko mu dem. def et puis liggéey en conséquence pour pour pour aussi parce que l'Afrique aussi a ses réalités demoon nañ amoon nañ benn groupe de performance mais malheureusement entre le championnat et li nga xamante ne moom mooy les compétitions africaines groupe bi dem nañ ba sonn ba finalement teniruñ donc peut-être qu'ils vont tirer les enseignements de de de tout pour permettre euh, beneen taxawaay. li nga xamante ne moom mooy Afrique désormais on attend euh, ki nga xamante ne moom mooy remporter la coupe du Sénégal kooku moom mooy teewal Sénégal ci li nga xamante ne moom mooy coupe CAF en tout cas coach ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau kaddu gu mujj gi lan lay sant yàlla rek di sant yàlla di rafetlu aussi ci invitation bi mhm. xam naa ne nag tey kontaan nga. waaw parce que déjà tout woo. parfois mooy suñu yéen ngi may comme ni ñu koy waxee. lu jot rek yomb. yàlla moom lu mu def rek dafa gën. parce que mënuma toog ci plateau bi te ma sant yàlla remercier ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon ba yàlla may ma ndam parce que Malick la ñuy gis ci kanam lu am Malick la ñuy wax waaye derrière malik am na ay nit waaw yoo xam ñu ci gannaaw am na Malick Diop suma rakk suma xarit am na am na am na am na Ablaye Fall sama xarit sama genn wàll sama wétali nga xamante ni su may def supervision nag tout le temps maak moom ñu ànd ba démb rek ñu ngi woon encore euh, euh, nu mu tuddati euh, Galandou Diouf supervisé donc di Jo Korea xam ne mooy préparateur gardien yi nga xamante ni moom il joue un rôle beaucoup plus important moom laay tuddee DT sax di ko tooñ mhm. su ma rakk su ma xarit la d'ailleurs sax la liste des convoqués la chargé jox la ko donc d'habitude c'est comme ça que je fonctionne avec staff donc daal docteur bi Adama Faye ak kiné bi El Hadj Diagne Yacoub Aydara président de la fédération monsieur Augustin Senghor Ablaye Sow fédéraux yi comité exécutif bi COMEX bi sénégalais yi en entier yéen waa presse bi parce que ñëpp parce que parfois ñu bind ñu gis ci suñu bopp parce que du lu ñuy def lépp baax parfois ñu critiquer ñu mais critiquer objectif dañ koy jëlee positivement ñu gëm ci xool lu ñu jël ko donc àdduna moo demee noonu di sant yàlla di remercier sénégalais yëpp waaw di wax ne nañ ñu gën a ñaanal parce que déjà fi ñu toll nii ñaanatuñu yàlla wàcc dañuy ñaan yàlla toujours gën a nekk ci kaw wala di dem fu ko yàlla nañu yàlla jàmm et puis basket bi tamit di yàlla yombal leen ko may leen ndam ndax ndamu basket Sénégal mooy ndamu ñëpp te loolu la ñuy ñaan yàlla suñu borom incha allah merci. merci beaucoup coach on espère que aussi coach Demba moom tamit après cette élimination. moom tamit dina ñëw toog fii ñu toog ñu ñu waxtaan ak moom. Fatou sama sama yaay. Ah, ma ko dama kër gi <laughs> mais ñu sama sama sama yaay moom vraiment. te madame ko gudd fan ko yàlla wéral ko. bàyyi ko madame nag moom kooku kooku moom mooy sama genn wàll. waaw parce que su ma defee cinquante yi cinquante deux moo koy def. ah waaw bu ñuy joué. ñoom lu ñuy daj ñun sax duñ ko daj. waaw moo tax ñun amuñu seen fay. et toute la famille ah parce gis naa bi ñu leen di recevoir. Mhm. bi ngeen jógee Coupe d'Afrique. Mhm. la famille Daaf. Mhm. les autres épouses Daaf. waaw ñoom ñëpp ñëw def seen t-shirt. mais loolu ñu tuddee famille famille Daaf sama frère yi sama sœur yi sama cousin yi sama tonton yi sama oncle yi sama maam taan ñëpp laa wax. Ah mag ak ndaw ñëpp. ñu ngi woon aéroport ça veut dire que waxuma sax loolu mais mm-hmm. suñuy joué rek liñ ciy daj. moo gën a metti moo tax ndam li seen ndam la ñoom ñoo ko moom. Mm-hmm. Malick moom seen Malick la nañ ñu gën a ñaanal rek. Mm-hmm. parce que ñun comme ni ñu koy waxee fu ñu nekk nii parfois dañuy ñàkk jot ñu mun dem ci yenn yi mais liggéey bi moo ñuy tënk te ñun ñu joxee mission yi mel nii ñu war a taxawal Sénégal dañuy def su bëgg a def suñu kéntulaay kàttan ba nga xamante ni dañuy bëgg a def lu baax pour bañ a décevoir nit ñi donc ñoom seen ñaan dafa am solo ñoom nañ ñuy gën a ñaanal dañu comprendre dañu muñal et je pense que incha allah taala ci yeneen compétition yi di ñëw yàlla gën ñu defal ñu jàmm comme li nga wax Coupe d'Afrique boobu Aliou Cissé mu commencé waat ko ci Aliou Cissé yàlla mayaat ko ndam mayaat ñu ndam ñun ñëpp incha allah waaw mu def tâche d'huile incha allah moom aussi dina ñëw fii ñu tiire nag li nga xamante ne nag moom le bilan des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans coach Demba moom tam sama sama càmmiñ la sama xarit la loolu ñëpp xam nañ ko maa ngi lay invité mais sama xarit la de ko sama la sama xarit la ah, eh, man man mi sama la loolu loolu ñëpp xam nañ <laughs> <laughs> kon jeex na ça a été un plaisir. <laughs> xaabaabal nañ sax ñu ngi jégal lool. voilà ndax lu ñu bëggoon wax yëpp ci basket bi on a même pas eu le temps. oui j'aurais aimé pour ñu waxtaanoo ci U25 yi. voilà U18 yi mhm. U16 yi. voilà waxtaan aussi tamit ci pré. Euh, sélection pré-olympique bi. olympique bi oui. voilà yëpp je m'attendais à ce que. Oui, avec quand même, avec les garçons. voilà ñu échange si. mais mais di nga dellu si waat incha allah ah, avec plaisir. ça oui. avec plaisir. voilà. mais quand même comme ni ñu ko waxee ñambaas yaaxoon daal c'est ça. Mm-hmm. voilà mooy li may wax rek fédération bi gën a bàyyi xel. Mm-hmm. voilà si petite catégorie bi. voilà parce que bu ñuy wax euh, tey jii équipe nationale day fekk. Euh, moo tax nekk li ngeen di souhaiter bonne chance aussi di leen di ñaanal yàlla may tamit euh, maanaam coopération française bi moo koy organiser. Euh, voilà il faudrait aussi que gis nañu depuis quelques années UCG yi bàyyi géewuñu champion d'Afrique géewuñu daal. et loolu c'est voilà c'est très grave aussi. Mm-hmm. voilà pour euh, benn discipline boo xam ne quand dafay préparer de ngay voilà moo indi tey bi li ñuy wax à chaque fois. voilà di jël expatrié yi di bàyyi locaux yi c'est parce que tamit amu fi relève boo xam ne tamit mën na leen préparer pour ñu assurer ko voilà di leen di féliciter di ñaanal euh, comment dirais-je encore euh, les Lions voilà fu ñu jëm yàlla defal nañ fa ndam voilà ndax seen ndam suñu ndam la dëgg la bëñ ak lami ñoo dëkk léeg-léeg ñu màttante mais lépp bu ñu ko tegee rek de côté rek nga xam ne équipe nationale moo taxaw rek dañu wax a bàyyi yépp ñëw jàppam si parce que seen ndam suñu ndam la voilà tey tamit ñuy nangu critique yi tamit parce que bu ñu koy wax tamit defuñu ko voilà boo koy def tamit day tax ñu gën a avancer te bu ñu koy def defuñu ko tamit pour critiquer la personne tamit mais liggéey bi moo tax ñuy critiquer ñu jël ko positivement et non négativement mais en tout cas nous sommes de tout cœur avec ñu ngi leen souhaiter bonne chance et tout di la remercier voilà di leen di féliciter tamit di remercier aussi mon frère euh, coach Malick Daf voilà di ko souhaiter aussi bonne chance ci échéance yi di ñëw et tout. voilà merci. nuyu ñu euh, waa kër ga yow tamit euh, nuyu ñu ñi nga xamante ne ñoom nga bokkal. CRBS euh, nuyu aussi tous les acteurs képp koo xamante ne da bugg. li nga xamante ne moom mooy basketball ñu ngi lay nuyu et puis on espère que du yàgg ñu dellu siwaat pour waxtaan ci yeneen échéance yi. Greg kàddu gu mujj gi. sama coach laa nuyu quoi. kan ci per Yatma. <laughs> attaquant des années 60 parce que. l'ancien international sénégalais moo may formé daal. mooy jox ay archives yu am <laughs> di ma jàngalaat yu bëri daal yoo xam ne nii man ban bañ koy wax sax moom xaw ma fan laa di ko nuyu baax a baax di ko ñaar rek wér gu yaram ak tawféex. amiin amiin amiin amiin euh, kooku moom euh, beneen beneen relation particulière lañ ah. am ak moom donc duñu def lu du ñaanal ko yaa nañu ko fi yàlla bàyyil ba si kanam kanam kanam période ma job à l'international kàddu gu gi. waaw ah, di la la remercier rek di la jaajëfal. Mhm. di jaajëfal bu baax tamit suñu ay gan. le coach Malick Daaf vraiment kontaan nañ trop. Mhm. parce que partager ak yow li nga xamante mooy plateau bi wax xam-xam bi ah, maanaam déglu nañ la avec euh, vraiment attention rek bu am nañu mbégte bu baax a baax tamit ah, di remercier aussi Nathalie wax dëgg yàlla tamit di ko jaajëfal xam-xam bi rafet na. Mhm. waaw comme ni mu ko waxee rek waaw ñëpp. critique yeex wax yëpp pour defar li nga xamante moo di basket rek mhm. mais bon gars yi ñu ngi ko dégg bu baax a baax di remercier tamit ñi nga xamante ñooy doon seetaan comme tous les di jàkkaar ne samedi bi dimanche bi di ñëw incha allah Adja di nekk spécial Wakam absolument parce ñun ñoo ay ah sa doom donc sama doom na. sama papa sama tonton papa la. Pascal mi am baccalauréat. Ah, ah, voilà Pascal Martin Bocandé voilà maa ngi koy félicité. Pascal Martin Bocandé félicitations maa ngi koy félicité bu baax tamit. di encouragé tamit euh, Vincenzo Pascal aussi. sama neveu la aussi moom mi doon passé bagam ñuy xaar résultat yi damay di ñaan yàlla may ko. ndam tamit voilà di félicité tous les admis au voilà ñi amoon tamit di ñaan yàlla tamit bu ñu découragé voilà di leen di encouragé jàng voilà parce que xale élèves yi sonn nañu lool tamit <laughs> coach mais di di rafetlu émission am solo la waxtaan yi vraiment waxtaan fi am solo la gis naa ne sa gars yi ñoom tàng nañ trop <laughs> <laughs> mais saral nañ am solo mais comme ni moi je suis tout le temps cette émission mais vraiment macha merci ñaan merci beaucoup en tout cas c'est un c'est un plaisir. ah Adama Kandé koy nuyu moom aussi euh, ñi nga koy nuyu tout le temps il il suit sport sur cette euh, Alaaji man ak moom dañu yàgg depuis Walfadjri sacré sacré cœur loolu yàgg na. merci à en tout cas de de de de cet intérêt yéen tam ñi ngi leen di jaajëfal jaajëfal Penda ci wàllu réalisation bi Ousin. Euh, ci son bi jibi dañ ci jàpp bokk ci desk sport bi toute la rédaction donc on vous donne rendez-vous dimanche prochain même heure même chaîne toujours avec euh, le même plaisir jërë ngeen jëf